jàppee moom sa bopp moom sa alal yombal sa dund ak boutique solution ñoo leen di may seen émission Taku Show troisième numéro de la semaine seen émission bu mag bi lee euh, mu di Taku Show ñuy sargal nga xam ne rek ñu ngi bàyyi xel fii ci Walfadjri jamono la voix des sans voix ci Solution TV ci studio El Hadj Sid Lamine Niass Niass Abdallah daal di soobu ci li nga xam ne rek moom moo di liggéey bi daal di ànd ak ki nga xam ne rek moom di Omar Bun Xataab Gueye ci lu ay di ñàmbat invité ki nga xam ne rek moom moo di Cheikh Fall avocat buñ ci jógee daal di ànd ki nga xam ne Cheikh Fall bu ñu ci jógee daal di ànd ak ki nga xam ne rek moom moo di maa jigéen Diop maa jigéen Diop ci actualité du jour <laughs> bu ñu ci jógee daal di ànd ak sponsor lu jër doxantu ak Assane Mesere victime di net son bu Nepal musical li moom bu baaxee ñu dem. <laughs>

ci la bokk moom euh, Cheikh euh, di PTP ci kanam incha allah dinañ waxtaanee ci troisième mandat parce que bi nga mujjee toog fii doon nga jàpp ni Macky da ko waroon a am te tey jii Macky. waaw waaw après. yow Cheikh Fall nag yaa ngi def lu la neex nag ci wii bi. waaw mais ki mooy Cheikh ki mooy Cheikh. <laughs> <laughs> ñu ngi koy nuyu bu baax dinañ ci dikk ah waxtaanee ci wàllu yoon aussi ah yaa ngi naan avocat du avocat mais juumoo mooy expérience bu bari la am. ci wàllu yoon avocat ah, mhm. dinañ ci waxtaan bu baax a baax di nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm di ñaanal sama waa ji Cheikh Bara Ndiaye suñu borom génnee ko fi mu nekk ak képp koo xam ne rek mi ngi ci loxo yoon ñu ngi ñaan suñu borom féexal la. ba nga génn ci jàmm fekk ci ci jàmm kon uh, ratu suka uh, kàddu gaango mbaa xam nga ni mbaa xeeboo ni nga def waaw bëgg nga bëgg rek rafet na macha allah <laughs> maam Jëng Saala coro ma jigéen uh, nu mu demee mage <coughs> <coughs> mhm. ça va alhamdulilah euh, sukkay mm-hmm. Mbaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax euh, di la ziar mm-hmm. di fay Omar nuyoo euh, nuyu Sanjoogu Meng ak gan Omar muy Cheikh Fall nuyu nag mboolem téléspectateur ak internautes yu ñuy suivre yëpp dem ba diwaanu yi benn dëkk ñaari gar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñanal leen jàmm di ko ñaanal nag sukkay Mbaye mm-hmm. Serigne Sidi mu Serigne Abdoul Ahad Mbacké ñaanal ko yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak weer defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko koy ñaanal nag mboolem xalif yi ci biir réew mi yëpp en nag ci kanam tuuti daañu ànd ak yéen ci euh, actualité du jour actualité du jour ah. ñu am actualité bu neex a neex. macha allah borom ngay mexe ah. ah <laughs> eh. nuyu naa la alaaji euh, soppe sëriñ Sidi Moussa Abdou Lahad Mbacké ibnu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul di nuyu waala sama sœur boobu di njilaan euh, xalif général ku lu jong ma nuyu naa la njilaan euh, saa maa ngi lay nuyu. suka muusal maa ngi lay fay <laughs> di la ziar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante ci yow. Mhm. di dem ba Touba nuyu xalif mu des Mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd wér waaye di nuyu. nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke. ibnu Cheikh Ahmad Bamba ngay ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di ko ziar wér nuyu baax sëriñ Xaadim ne ca kër ga di nuyu njaboot ga yëpp. di mhm. leen ñaanal jàmm. di nuy sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarim axlaa nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp. Mhm. waaye ñu ngi nuyu Mama Jeynam Fall kooku sunu maam di nuyu mhm. monsieur sunu tonton la. di ko ñaanal jàmm di wax ni Cheikh Bara Ndiaye ñu ngi koy ñaanal. fa mu ne mu jógee fa ak jàmm macha allah delluwaat ci njaboot gi sénégalais yi namm nañ ko moom Cheikh Bara macha allah ñi ngi koy ñaanal mu daal dee génn ak jàmm mm-hmm. dellusiwaat ci li nga xam ne mooy liggéey bi parce que jamono ju mel nii ñu mel noonu dañoo baax ci réew mi mm-hmm. macha allah di nag bu baax Omar bun Xataab di am ci moom mbégte kontante di nuyu bu baax Cheikh Fall ancien membre du PTP <laughs> ñu ngi koy nuyu avocat di ko ziar ma parce que PTP maître Adjouf dàq na ko fa yàgg na donc day wër nag di def usurpation de de de de kii mais dàq nañ ko PTP donc bu bëggee ñëw di présenter woo PTP loolu bu ñu ko cautionné maître Adjouf mën nañu ci mere te loolu duñ ko nangu kon Cheikh Fall bokkut PTP ngir muy leer. di nuyu ma jigéen Diop macha allah di am ci moom mbégte kontaan te di wax ni euh, sukaa bu ma nee neex musal parce que sukaa dafay def at mu jot saa yu ñu tabaskee ba noppi euh, macha allah mu saaf indil ma muusal loolu nag mu koy yàgg a def waaw donc nag mu def ko tey indiwaat ko mm-hmm. ku baaxantal ma ne ko moo tax ma daa wax ni kontaan naa bis bi mu ko indi bis bi ñu toog ba ñu topp di metti noonu lu baax la parce que macha allah munu ci dara <laughs> waaye su kaa ñu ngi kontaan ci yow di la ñaanal jàmm di ñaan eh, yàgg sa jëkkër yàlla leen sunu borom. Eh, gën a jubale loolu am na solo macha allah vraiment kontaan nañ ci yow. <laughs> Ah, lu ma war la sam xar yéene nga ma ci mbaay wutee nga ak ñi nga xam ne léeg-léeg ñu supp daa dee indi waaye macha allah jërëjëf su kaa ku mu neexul toppal fële. <laughs> alors jërëjëf Alaaji lu ma war la ndax damay wax ni ko lu yàgg rek dëgg la maa ngi danoo yàgg <laughs> donc ñu dem régie daal di ànd ak ki nga xam ne rek moom moo di Omar Bun Xataab Gueye ci lu ay di ñàmbat Omar Bun Xataab ah, kon ñu bàyyi la ak PTP Cheikh ah, micro bi nga gën ko aye kii ah, non non mais Cheikh mais Cheikh waa waa PTP dañ ko war a njukkal parce que jamono yi bu ñu déggee PT bu ñu dee dégg PTP Cheikh moo tax. parce que man c' est la seule personne bu may dégg mu ñëw représenter parti bi jël ay position El bu dee wax mbir yoon lay nga koy gën a dégg. xam nga man dama gëm p waaw. te loolu nuyoo askan mais sa taxawaay dëggal na ko damay bàyyi nga nuyoo man man man yow laa àndal. jeex na. asalaamaaleykum di leen nuyu di rafetlu invitation bi fii sama li tax may déconné parce que fii sama famille la mhm. fii sama kër la mhm. heure bu ma bëggee nañ may invité ma ñëw toog mhm. sans sama doomi ndey sukka <laughs> Marème ak euh, papa sama xarit di xarit Moussa Omar Omar moom yàgg naa sama membre famille yàgg naa kër ga xam na waaw di nuyu sama xarit bu nekk Dagana mooy ma Samba moom fépp fu ma toog moom mooy siibru mhm. di kilifa gu mag ma Samba kan mhm. di ñaan yàlla def jàmm ci Sénégal man nag di rappel ni je suis membre je faisais pas je fais partie des membres fondateurs de di parti Sa Ndiogou sama xarit la moo tax mooy tooñ mhm. man PTP man maa ko formé man ak maître El Hadj Diouf et compagnie je fais partie des membres fondateurs de sa parti donc te aussi pour defendre le PTP foog naa ni man rek nañuy gis moo tax Sénégal yëpp mën nañuy invité rafetlu loolu chaque fois ci PTP may ñëw di jàppale sama parti te xam ne c'est un grand parti aussi. waaw mais dooy xool euh, parti bi presque man maa ko yor ah. parce que ah, ah waaw. parti bi man rek nañuy gis. ki day risqué du non du euh, du question du question risqué parti dafa am na ñoo xam ne ñoo koy doxal. parce que mun nga dégg eh, maître El Hadj Diouf en tant que avocat moo gën a siiw maître El Hadj Diouf en tant que secrétaire général du parti maa ngi koy nuyu actuellement mi nga sa màkk di ñaan yàlla ay ñaanam yépp nangu pour l'intérêt du Sénégal parce que nit ku bëgg Sénégal la loo ko munti wax xeexam yépp pour Sénégal la waaw waaw man man man man nangul naa la loolu man nangul naa la ni PTP mm-hmm. heure bu ñu ko déggee Cheikh Fall moo toog ñëw di wax au nom du parti te loolu lu la mën a nangul la parce que El Hadj aussi ñëpp ko xam siw na mais ci mbiri yoon nga koy dégg ak ci yenn dossiers yi. Mm-hmm. mais bu dee PTP yow yaay ñëw assumer taxaw wax. mais da am foo wuuteeg El Hadj te tey jii mën na wax ni El am na ndam ci yow. Mm-hmm. pour man depuis Màkka waru nga jël sa téléphone woo ko na ko grand neexul ba neexul mais visionnaire nga ko am vision politique nga parce que bi mi yëpp ne Macky dafa war a am troisième mandat ñi farak moom. Mm-hmm. bokkoon na ci yow mi El Hadj moo taxaw ne déet. mais est-ce que jël nga téléphone woo El Hadj Diouf. Mm-hmm. ko par rapport à ça parce que tey jii lii ndamam la parce que bi ñëpp nee na Macky pour troisième El Hadj Diouf moom fu mu mës taxaw ci àddina danaan Macky sañul taxaw sénégalais yi naan leen damay ut ñetteelu mandat te yow da doon défendre troisième mandat. waaw damay défendre troisième mandat ba léegi ba tey li ma waxoon aussi am naa ci ndam parce que xam nga lan. Mm-hmm. dama ne. selon la constitution du Sénégal. Macky Sall Macky Sall peut bel et bien être candidat mhm. kooku man loolu laa gëm parce que aussi lecture la rek ci la constitution ñun bi ñuy dem référendum moi je n'étais pas avec Macky Sall j'étais avec Idriss mais nous tous on savait que Macky Sall peut bel et bien être candidat parce que la la nouvelle constitution par la loi la durée du mandat de cinq ans mhm. la durée du mandat du, du président de la République et de cinq ans renouvelable à une seule fois Macky Sall benn cinq ans la def et puis même même bi ñu bindee la la no Macky Sall avait adressé une lettre au Conseil constitutionnel pour réduire son mandat de sept ans à cinq ans kon amoon na intention yi ñi ko xam xamoon na ni peut-être mun na bañ a def troisième mandat parce que dooy xool ki nga xam ni mandat sept ans bi ñu ko joxoon sax dem na ba ba koy réduire pour def ko un mandat de cinq ans même euh, constitution boobu ne ko yow mënoo koo def du yow yaay yow yaay yow yaay waaw du yow yaay wàññi wala yow yaay yokk dañ la fal sur un sur une durée de sept ans donc mënoo ñëw durée bi nga wàññi ko def ko cinq ans. Mm-hmm. mais euh, la durée du mandat la durée du di mandat en cours et hors portée de la nouvelle loi. cela veut dire que bi mu saisiree le conseil constitutionnel sur cette nouvelle durée. c'est parce que c'est xam nga fi nga war a njëkk ñëw. fi mu ne fi nga war a njëkk a mooy président Macky Sall bi ñu koy fay limitation mandat am na ba pare. waaw kon kañ ñaari mandat mu ko romb. non non mandat bi non non euh, xam nga fal. boobu dañ ko fal ci ne ko ñaari mandat nga mën a def jóge fi. moom tamit mu bind ko. saa euh, saa mën na fa faire plus de deux mandats consécutifs. de cinq ans. déedéet mais mënoo ko nga non écoute Macky Sall il n'est pas juriste xam nga loi dafa am lu ñu koy tëkkee. mais sama juriste El Hadj Diouf leeraloon. waaw mais même si les juristes cela veut dire y a ku nekk da ngay joxe sa vie parce que c'est une loi constitutionnelle. dans la loi constitutionnelle la la la la durée du mandat de la di président de la République en cours est hors portée de la nouvelle loi loolu la loi bi wax cela veut dire dañuy dagg texte yi indi ko ne non le président de la République deux mandats consécutifs. parce que ñooñu koo dégg mën a deux mandats consécutifs de quoi deux mandats consécutifs de cinq ans hmm. Cheikh nag gënoon ngaa brillant nii man xam naa ne ci yoon euh, suñu borom may na la ci ñi dañ ko jàng mais suñu borom dala cee may mais Cheikh une minute yaa ngi wax mais waxoo nag loo xam ne mën na aj ngooñ parce que au moment où la président de la république nday mbi gi na bindoon naa ko ne duma amaat ñetteelu mandat taxaw wax ko pour man débat bi nga ñu dugal est-ce que jarati na ko. débat bi jaratul débat si la si le mandat du président de la république loolu ay principe am la. Mm. parce que Macky Sall ñi ko xam xam nañ ni. même ki nga xam ne dafa renoncer ay mandat mais depuis euh, depuis bi ko Ablaye Wade da daaxee dafa renoncer le mandat di député ba bàyyee ko Ablaye Wade renoncer mandat maire am ab ko Ablaye Wade peut-être man dañ ne Macky Sall li tax sax man may ma koy may ma koy ma koy supporter à chaque fois parce que je me suis dit c'est un grand homme ba pare mu def benn act boo xam ne salué par l'international et l'Afrique il a honoré l'Afrique parce que le fait pour fois dans l'histoire de l'Afrique benn président de la république qui est en exercice renoncer mandaayam bi nga xam ne moom dafa war a dem élection ne élection yii kat dinaa ko organiser teg ko ci yoon mais nag il ici aussi il faut ñu décortiquer ma euh, kii message bi mu wax lépp il c'est lui qui est le garant des des des de la constitution cela veut dire que le président de la république képp koo xam ne justice nee na munoo bokk doo bokk képp ku justice ne yow munoo bokk doo bokk parce que aussi nous sommes dans un état de droit. comme moom ni justice ne ko parce que yegg yeggaguñ ci conseil constitutionnel. moom dadul déposé bay bay egg foofu. waaw moom nee na bokkul. bokkutul moo tax gis naa la conférence de Benno de Yewwi Askan bi hier mais n'a pas sa raison d'être parce que actuellement euh, un événement peut en casser un autre mais munoo jël lu toll ni événement de renommée international Macky Sall bàyyi na nee na du dem àdduna bi yëpp di ci bind Amérique ak France yëpp nga xëy na da ngay organiser une conférence de presse c'est un événement événement ñaari mandat la ñu en Afrique ñun ci Afrique dañoo dañoo habité di dem ba jeex waxuma la cent euh, deuxième mandat troisième mais centième mandat xam nga Cap Vert ak Niger gii xam na ñun dañoo jàpp ci wàllu démocratie ñoo leen raw li am fii dafa am amaat kon loolu du lu ñoo xam ne Sénégal rek lañ njëkk bees maanaam ñu fal la ñaari yoon nga def ñaari yoon dem sa yoon pour man jarul tàccu jarul. waaw mais xam nga mënoon na xaar wala mu def ni ab Wade son précédé hmm. précédé wa euh, li mu def. Hmm. cela veut dire dafa xaar xaaru ko fa moom. pour l'intérêt du Sénégal mën na leen dinaa organiser ay élections libres et transparentes ba pare képp koo xam ne conseil constitutionnel validé na sa candidature nga dem man ma superviser élections yi organiser leen dem jox képp ku nga xam ne yoon yow la wax ma jox la léeg nga dem sa yoon nga doxal. Hmm. mais nag du nangu Sénégal kenn ku ko daal gis naa ay leaders yoo xam ne ñoom munuñoo ne représente absolument rien di tout munuñoo gañee dara xam nañ ni ñaari nit mënuñ ko jëlee comme disait Barthélémy Diaz sa matin parce que fii Sénégal ku fii nax sa bopp moo tax nga ne yow wala xamoo politique wala ngay blessir ci ci acteur politique bi soog a ñëw wala da ngay soog a bleu di soog a ñëw parce que doo ne yow mën nga gagner les élections présidentielles au premier tour mais personne ne peut gagner les élections présidentielles au premier tour peut-être man da nga exemple koo xam ne ci Benno la bokkoon non du ma ci Benno man moo candidat Sénégal non non moo dans le Benno c'est Maître El Hadji Diouf le meilleur candidat pour le Benno Maître El Hadji Diouf le dikk candidat pour le Benno mais El Hadji Diouf a soutenu le président de la République Macky Sall depuis lors mais lan la ko Macky Sall mun a mu sa jox pour guerre yëpp li xeex bépp xeex bu am Alaaji Diouf moo ko porté à l'intérieur du Benno duy daw même dans les débats yéen ñëpp mun ngeen koo témoigner amul kenn ku ñemee génn taxaw fii du lu mu tàng tàng dem dem débat ñoom ñëpp dañuy daw te pour pourtant ñoom nañ jox DG yi ñoom nañ jox euh, ministre yi moom nañ jox PCA yi ñoom nañ jox lépp cela veut dire que même Macky Sall sax. à la fin da koy apprécier ci lim def parce que sont de euh, ay escrocs ñoo ko wër mhm. donc c'est de l'escroquerie politique en quelque sorte mais nommer de DG et des ministres qui n'osent même pas d'aller dans les plateaux pour défendre le président de la République des gens yoo xam ne amul lenn lu ñu apporter seen seen seen koñ mënuñoo gagner dara mënuñoo apporter dara munoo leen soxla ba gis leen man dama ne la avec tout ce que je fais est défendre le président de la république avec le Benno Bokk Yaakaar la fête tabaski gii dama ne la bi mu jotee koo woo sax du la jël téléphone parce que foog nañu sax di nga maye benn xar wala dara et bien avec ça vous pouvez diriger ce pays seul maître El Hadj bi nga xam ne mooy yëkkati des fois dix huit xar jox ma pour may joxe mais parce que il l'a fait parce que am na sa générosité et puis il défend le président de la république sans ranking il défend le président de la république te amu ci il ne fait pas les choses à moitié qui connaît maître El Hadj Diouf mais pourquoi pas maître El Hadj Diouf ne peut pour rendre hommage delloo El Hadj Diouf njukkalam nee na ko vous yow bu def nga ministre def nga assemblée national fukki at def nga mi dem nga député def lépp doon nga avocat am nga les possibilités ah. et le pouvoir intellectuel pour ba pare am na le courage ne ne Macky Sall munoo bokk dafa waxoon da ko Ablaye wax du wax ko Macky Sall donc amul benn intérêt boo xam ne da ko dafa am lu muy ragal wala lu muy ëpp ci nit parce que li muy am am na ko ba pare peut-être qui ne ko pas Maître El Hadji Diouf ah, non dafa def lii dafa non attends El Hadji Diouf reste égal à il est présidentiable je demande à Macky Sall solennellement. doo déglu c'est un appel que je lance le président de la République non on a défendu Macky Sall je lance un appel solennellement le président Macky Sall de porter la candidature de maître El Hadj Diouf dans les présidents ah, élections présidentielles. Cheikh bàyyil comédie bi nag kenn du la. Eh, comédie ah, ah. man man sama problème mooy mu ngi wax mbiru euh, mandat yi limitation bi te 2016 euh, fii Macky Sall dugg si kër Serigne yëpp wax ne mbirum euh, référendum référendum bi euh, dafay bëgg rek ñu régle problème mu mandat yi donc bu ñu ko laajee daf ne loolu régler nañ ko bi ñu defee vote yi ba noppi donc soo ñëwee ba tey ngay wax ne euh, conseil constitutionnel may na ko ko léegi waxu 2016 yi nga xamante ne nii yëkkati woon ko wax ko sénégalais yëpp dégg ko teg ko seen bët loolu aussi fan nga koy teg beneen bi yaa ngi wax mbirum di honorer président de la république di ko honorer pour lan parce que li mu def daf koo war a def soxlawul nit di ko ci honoré tey jii nii mérite bu honoré boobu noonu ngay wax ñi ko mérité mooy peuple sénégalais bi ak waa diaspora bi parce que ginnaaw yàlla ak yonent bi ñoom ñoo poussé euh, waa ji pour mu dellu ginnaaw parce que position bi mu amoon te nit ñi doon ko gis mooy que ni dafa bëggoon projet candidature parce que da nga doon seetlu à chaque fois kuy wax si euh, ne euh, Macky Sall warul def troisième mandat daf lay ku ko ku ko ci défendre aussi mu jël la jox la ay postes yoo xamante am na lu ma bëggoon mais sénégalais yi ñoo ñoo ñoo taxaw lànk ne loolu du am loolu tamit loo siy wax si la diaspora ne représente absolument rien du tout sur le vote de ce pays. diaspora bi lan la représenté. ci réew mi di participer. non c'est mais mais diaspora boobu rek diaspora bi pourcentage am sur électorat Sénégal ça ne représente absolument rien du tout. est-ce que diaspora boobu am ay jabar fii moo ne lu fi munti am diaspora bi. yaa ngi mel rek yaa ngi mel rek Macky Sall ci eh. discours am. waaw s'est adressé. waaw au diaspora. parce que danee diaspora boobu tey démb barki démb gis ngeen niñ mobiliser demander l'électeur demander que Macky Sall. waaw euh, non yow mi ne représenté wu dara nag. kon Macky amul fu mu leen teg yaa yaa leen tegul fenn mais Macky bàyyi na leen. ma ne la Macky Sall c' est sa décision personnelle. Mhm. cela veut dire Macky Sall c' un grand homme d' état. Macky Sall il n' est pas n'importe quelqu'un ba nga xam ni mi ngi incarné jéem ëllëg. Mhm. pour diriger le monde. Mhm. pour lépp loo xam ne am na conflit mais ko dee leen xool geste yi muy def peut-être da ngeen ko koy nangul guerre bi Ukraine kan moo fa ñemee taxaw. mais balaa ngay régler guerre jàmbur doo régler li. mais non non non le problème du Sénégal réglé nañ ko problème du Sénégal yi a des voyous des bandes yoo. xam ne non non non non non le problème des Sénégalais y a des ay band yoo xam ne ñoom ñooy dem di saccager les biens les biens publics et édifices léegi nag. mais parce que parce que le Sénégal dafa dekk dans un état boo xam ne dafa commencé am pétrole. des ressources naturelles non non attends cela veut dire que Sénégal nous sommes dans un état état bi dafa commencé am ay ressources naturelles. Mm-hmm. ressources naturelles yooyu c'est comme partout dans le monde. moo waral ay jihadiste ak ay nit ñoo xam ne influenceurs yoo xam ne ñi ngi partout dans le monde ku nekk da ngay am sa nit pour dugal ko. pour nit kooku jël la pouvoir mais loolu ñuy jël askan wi di leen rey. di leen ban askan nañu rey askan bi kan moo leen rey. ñan ñoo tiiree mais mais mais sont sont les forces occultes que la non non le le procureur de la République du Sénégal qui faisait une conférence de presse à l'époque pour dénoncer les forces occultes de de pays. cela mais kan moo taal Université de Dakar kan moo taal université de Dakar mais étudiant góob ma ni dina ñëw di taal. université de Dakar mais ana force mais non état xam nga teew teew ceex théorie ngeen di bàyyi état bu la wax lépp. mais dafa am lu ñuy junj. li ñu junj mooy jàpp wala ñu ni ñii la. mais munuñ la koo wax parce que démb tey jii ñi ñuy àtte fii pour yàmba ak dorog tey kenn wanu la ko. dëgg yi ñëwoon ne dañ leen indi wax. mais mais loolu amul wane parce que dafa leer. non du force euh, occulte mais boo réelee benn mbir ba mu rëy nenu ñuy ay terroriste ak force occulte. mais sont les secrets de l' état. état dafa am lu muy doxee dafa am ce qu'on appelle des secrets. billahi les secrets d'état d'état bi ñoom ñaari bu leen gisoon bu leen gisoon wane leen. Oh, waaw xaaral euh, yow fan nga teg nii. na président Macky Sall la jël ki nga xam ne rek moom moo di maître El Hadj Diouf euh, def ko ki li nga xam ne moom moo di euh, bokk boole ko ci Benno Bokk Yaakaar pour mu mën a jiite mi loolu foo ko teg. ma ne kooku je prends en témoignage Sandiogou. Mhm. en 2007. saa loo xam en 2007. waaw en 2007. Mhm. Abdoulaye Macky Sall El Hadj Diouf était l'homme l'opposant le plus célèbre parce que dafa sonaloon Ablaye Wade. Mohamed El Hadj waaw. waaw mm-hmm. ah, boobu nekkoon na ñu ñu jëli ko. waaw ah. Macky Sall c'était son ami parce que ñoom ñaar yàgg nañ bokk nañ. Mm-hmm. Macky jëli ko décision boo xam ne kenn àndu ci woon pour El Hadj Diouf rejoindre euh, le mouvance présidentielle. Mm-hmm. mu may loolu Macky Sall honneur boobu. ànd ak moom ànd ak moom di campagne. ba Macky gagné les élections def ko ministre et tout cela ñuy xeex Macky ba bañ jëlee leen fa man maa jëli woon l'extrait de Maître El la Diouf man la ko Macky Sall santoon man ma dem jëlali leen l'extrait de Maître El Hadj Diouf pour que ñu dugg ñu dem assemblée nationale parce que à l'époque ne woon na ko Ablaye Wade dañu fi jëlee donc nañ dem assemblée nationale ñu continuer la ñu continuer xeex boobu au niveau de l'assemblée nationale mm-hmm. moom Macky Sall continuer xeex boobu bañ jëlee Macky Sall assemblée nationale Macky Sall jóge fa waaw Alaa Diouf continué xeex bi di ko xeex di xeex di xeex di xeex di xeex ba le juin keroog maa ngi rappel bi mu ñëwee fii wal fajiri Sidi Lamine Niass dawee assemblée ñëw Sidi moo ko njëkk dalal fii mu def lancer un appel pour tous les Sénégalais ne ticket bi bu leen nangu mukk mu jàll Ala Diouf di ko xeex di ko xeex di ko xeex ba ñu retiré ticket bi le 23 juin. Mhm. il était di du 23 juin loolu tax ñu ko. waaw léegi mais ma foofu laa ñëw c'est que. Euh, naa Macky Sall yàgg na koo xeexal. waaw même même ma ñëw. Mhm. c'est que maître léegi lan moo indi rupture am entre moom ak peuple parce que peuple bi ñoo ko tuddee woon. l'avocat du peuple. waaw ñu jékki-jékki même peuple boobu. rupture dox ci diggante maître Ala ak peuple bi léegi fu muy dox nit ñi di ko yuuxook yooyu. Mhm. peuple bi ñoo xamut li muy liggéey wala moom moo xamatut fu muy teg tànkam. non xam nga dañoo nekk ci politique. waaw et puis c'est pas n'importe quel avocat qui ose prendre certains dossiers. Hmm. ala loo ko contre contre xam na un grand dossier du taxawee te Walfadjri fii laa gis. lan Papa ba mu ko laajee. ba mu ko laajee est-ce que yëg nga ni Ousmane Sonko mu ne xoolal ma tourné ne ni yé je suis avocat parce que xam na ni Adji Sarr xale boo xam ne la. Ousmane par rapport avec Ousmane Sonko a sa dimension de portée nationale et internationale aucun avocat n'ose à ce moment bu si récupérer jël dossier boobu taxaw di défendre mais comme chaque fois dañ naan El Hadj Diouf ah mi ngi noonu comme Hissène Habré et tous les grands dossiers. El Hadj eh, fa xew. bu fa bu ko tuddati. bu tuddati Hissène Habré de ose porter ce dossier. mais donc tey ñi nga xam ne dañoo far ak aji Sarr mhm. supporte Maître El Hadji Diouf ceux qui sont avec Ousmane Sonko ne peut pas conseiller ne peut pas désirer Maître El Hadji mhm. c'est la position d'un avocat à chaque fois dans les audiences ki nga xam ne parti bi nga xam ne ñoom nga àndal dañ lay supporter beneen parti bi duñ lay supporter ci dossier bi noonu di défendre Euh, défaite bi noo ko gisee défaite bi mu ci am défaite ban. défaite bi mu ci dossier bi. ah non El Hadj Diouf après. déjà ngay ngay gëmloo nit ñi viol ak menace de mort. waaw xam nga ah. dama leen comprendre parce que en droit il y a le principal et le subsidiaire hmm. parce que en droit yow mun nga ne dama sàcc sa big bii. Hmm. parce que dooy bind plainte vol ngay def. mais y' a ce qu'on procureur de la république qui qualifie encore requalifie les faits même mun nga bind ba pare yow avec les PV de la police de la gendarmerie le procureur de la République pour requalifier les faits mun na leen vol destruction euh, agression euh, vol la nuit avec usage association de malfaiteurs loolu ce qu'on en droit moo taxaw duy def sa réquisition du te jógee taxaw dafay nekk en principal. mais viol ah, non non non ça ne lie pas le juge. c'est ah, pourquoi ma ne. le non non. cela veut dire que lim ko condamné moo gën a graaw xamatu la. dañoo condamné. pour corruption à la jeunesse corruption à la jeunesse xam nga loi boobu lan moo ko. mais mais non la loi non corruption à la jeunesse dañuy wax ci dañuy wax si dix huit ans jusqu'à euh, mineur jusqu'à vingt et un ans. Hmm. corruption à la jeunesse. Hmm. mineur jusqu'à vingt et un ans lay wax. parce que da am sa doom yóbbu ko à l'université âgé de vingt ans muy soog am bac. benn waay bu jógee fële am na ay moyens am lu mu jëndalee greffage et tout jël xale bi chaque six heures mu récupéré ko yóbbu parce que capacité am euh, euh, xalaatam yeggul foofu di ko jëndal greffage jënd daal jopp xale bi lu yal ko benn chambre chaque fois mu mu mu yegg ci mais moo tax France nga fekk ci bain bi ba pare nag <laughs> moo tax en France la corruption à la jeunesse moo gën a garaaw même euh, la la la le viol da nga mën a tëgg ku France daan kan da a dégg mais chaque fois il a plusieurs condamnations en France sur une corruption à la jeunesse. Euh, loolu de cela veut dire dans ce délit le juge a condamné condamné sur corruption à la jeunesse parce que juge bi day condamné si son intime conviction. cela veut dire que dans son intime conviction le juge a condamné sur corruption à la jeunesse cela veut dire que ki nga xam ne ñu ngi lay tëddee suba ngoon guddeeg bëccëg te amoo moyen yoo ko bañee. non am na koo xam ne ñu koy tey non dans les cas de viol hmm. moi j'ai l'habitude de traiter ces genres de dossiers de viol cela veut dire viol rarement ngay dégg xale bi wax du demee ba sës wala par par défaut ngay dégg mu wax hmm. mais ñi ñu viol yëpp même seen ndey ji leen juróot seen bàyyi duñ leen ko wax nit a koy découvrir seen sœur wala seen benn la non mais y a ce qui ce qui est plus grave que le viol le viol c'est un c'est un acte c'est de pénétration sans consentement peut-être ça peut durer à une seule fois mais ki nga xam ne heure bu sa xel demee ci yoon nga ku nga génn couvre-feu ba sax jaral na la nga dem nga laal ñëwaat eh, mais quand même il faut jéggal leen ma ci terme yi ay kilifa ñi mais loolu le juge bi condamné waxuma luñ def parce que moi je suis un ami euh, de de tous les politiques mm-hmm. ñoo li ñëpp xam nañ loolu j'ai beaucoup de respect pour Ousmane Sonko parce que du du dara sax non non non non non non non non non non non non non non attends non je dis la décision de justice non je décision de justice parce que xam nga pour lan maa am respect ci moom c'est un jeune bi nga xam ne dafa engagé pour le développement du Sénégal pour xeex mais le problème ki sa pose bokkuñ ay vision parce que moom coûte que coûte il veut il veut et moom ku ko fu il veut prendre le pouvoir or que moo tax je lance un appel. Ousmane Sonko mais non non non non non non pouvoir pouvoir kenn du ko jëlee noonu. bàyyi déclaré fii sax si Walfadjri waaye Ousmane Sonko gagne les élections au premier tour mais Walfadjri kan lañ yàpp. Ousmane Sonko nan la mën a gagner les élections au premier tour au Sénégal. mais sondage yi non non benn sondage wane wu ko. Ah. c'est le sondage dama ne. sa non attends ñun nous sommes des politiques. Eh, Macky Sall ne peut pas gagner Kaolack Macky Sall ne peut pas gagner euh, Fatick Macky Sall ne peut pas gagner Kolda Macky Sall ne peut pas ne après nga ñëw gagner premier tour. mais nan la mën a demee. waaw léegi nañ ko bàyyi mu demee. mais dans les non duñ ko bàyyi mu demee non non attends. nous sommes nous sommes dans un état de droit. il faut respecter la justice de ce pays et les institutions de ce pays. Cheikh da ngay déglu nous sommes dans un état de droit. Cheikh xam nga da nga wax wax boo xam ni euh, faaw nga leeral. fan la Walf taxawee def ay sondage non dama ne. non non li nga moom laa la bëgg a leeral nga taxaw. wax ni Walfadjri dafa def ay sondage non dama dégg léegi fan la ko ko defee daal déglul waa léegi ah, da ngay génn répondre man jëfuma sama laamañ sama dama ne waaw fan nga ko waxee ci Walfadjri laa dégg benn nit toog benn nit kan le dirigeant de Walfadjri Cheikh Niass mu ne la ne dans les sondages waaw ay sondage la la dans les sondages ma ne sont les sondages de Cheikh Niass sont les sondages de Cheikh Niass ce ne sont pas des sondages de quiconque mais attends dama ne Cheikh Niass il est mal placé. il est mal placé on attendait Cheikh Niass tout pour que boo joxe les résultats. waxu ne moom moo def sondage. dane ay sondage yoo xam ne def nañ ko yoo xamante ni lii la wane te sondage yooyu président Macky Sall yor na ko loolu la wax. mais je défie Cheikh Cheikh Niass nañu génneel sondage yi nga xam ni président Macky Sall yor na ko Macky Sall amul benn sondage je défie quiconque je suis plus proche que lui que le président de la République dama ne Macky Sall amul benn sondage bu ko jox ne dama dama ne Macky Sall Macky Sall amul benn sondage bu ko jox ne que soo ko gagné les élections il faut qu'on arrête je défie quiconque je défie quiconque je défie quiconque waaye yow Macky Sall n'a pas les sondages sondage bu déterminer que Sonko peut passer au premier tour et puis ici au Sénégal personne ne peut gagner les élections au premier tour peut-être le cas au pouvoir mm -hmm. mais les opposants ne peuvent pas gagner aucun opposant ne peut gagner yaa ngi nelaw de waaw ça ça man foofu dana di ne peut pas gagner les élections au premier tour damay defaat damay yokkaat. temps bee dañuy yokkaat temps bi yokkaat temps bi. temps bi sama kër la. waaw mais temps bi jeex na. Cheikh tàggatoo. waaw maa ngi tàggatoo di nuyu borom kër gi dama ko fàtte nuyu Cheikh ñas waaw ak Sidi sama xarit boobu yàlla ko yàlla may àjjana yu gën a mag waaw fii sama kër la di rafetlu invitation bi ñii oh. nii nañ mel yéen des fois sax dañuy foog da ngeen far faralu leen kenn hmm. yéen naturellement nii ngeen mel vraiment di ñaanal sama xarit ba Cheikh Bara Ndiaye la cousin de Maître laa Hadj Diouf yàlla génn ko fële Cheikh nuyu naa la démb utal naa sa gars ay permis pour ñu ñëw seet si la alaaj Diouf nuyu na la mi ngi sa màkka mi ngi lay ñaanal pour nga jóge fa di ñaan nag Macky Sall na jàppale candidature de Me El Hadji Diouf pour que Sénégal jëm kanam ah. <laughs> di ko gërëm bu baax di ko sant ah, Cheikh Fall ah, du membre nag ça Cheikh Cheikh dafa léegi parce léegi day def waaw waaw allah <laughs> est-ce que la mu la indiwoon mais tey est-ce que El Hadji <laughs> moom bëgg moo ni ma sëriñ ci <laughs> ala jërëjëf Omar bu ñu xataab Gueye voilà jërëjëf euh, rafetati na ñu lay sargal Cheikh lu bare bare ah euh, Cheikh Fall PTP donc ñu dem régie daal di ànd ak euh, maa jigéen Diop ci actualité du jour allez jërëjëf euh, Alaaji euh, lan nga nu indil euh, Mange. <laughs> waaw tey nag ajaratu daañu waxtaanee moom député maire muy Barthélémy Diaz tey nag ci suba gi dafa joxe woon rendez-vous sur sa page Facebook ngir rek benn déclaration bu mu waroon a def. Mhm. mu yëkkati nag ay kàddu yoo xamante ne ni yu am am solo la ci doxalinu réew meek Macky Sall décision bi mu jël am na lenn loo xamante ne nii rek cof nañ ko ci. nañu dem tegal leen ko daal di dellusiwaat ci bile plateau. ci dëkkandoor ak mbokk na bàyyi xel ci lu ñuy sàkku ci moom mooy élection inclusive ñëpp mën a bokk parce que daanaka dafa am ñuy fural wante askanu Sénégal yan lay waxal Sénégal su ma baat ci kaw te ñëpp ak may dégg amugul benn acteur politique fii tey Sénégal bu fi am 30 pour cent premier tour élection présidentielle moo tax may sàkku ci président Macky Sall euh, na def kem kàttanam ba élection bi mën a nekk inclusive bien sûr pour ñuy respecter Euh, les conditions pour mën a bokk ci élection yi parce que euh, am na élimination loolu moom la ñuy ñaawlu mooy sélection bu ñu bëgg a organiser à la place de élection wante nag am na ñu ngeen xam ne ni euh, du ñu mën a bokk parce que tamit dañu bokk ci république te république dafa am loi ak ay texte wante ñu ngi insister ci lii di l'inclusion de tous ci élection yi gisuma lu tax tey ñu bëgg a ñenn ñi wala ñuy joxe impression que ñu bëgg éliminer ñenn ñi naam nañ droit fuural wante suma baat ci kaw amul kenn kuy gagné élection Sénégal tey premier tour amul kenn ku mu neex nag yëkkati loxoom ku mu neex fëgg dënam dama ne su ma baat ci kaw matagul at ci ginnaaw njabootu Ablaye Wade ak njabootu Yewwi Askan Wi ñoo lëkkaloo joxante loxo pour am à cinquante et un pour cent kon nag nañu respecté Sénégalais yi parce que gisuma tey nak la njabootu Ablaye Wade mën a am seen candidat njabootu Khalifa Sall am seen candidat ñeneen am seen candidat ñit fëgg ne tey day gagné moo tax may sàkkuwaat ci président Macky Sall euh, na ñëpp aafiya ñëpp mën a bokk ci élection yi Euh, yéen ndaw ñi yéen la jeunesse du Sénégal yéen yaa leen di ëllëgu Sénégal euh, waxu dialogue bi il y a eu beaucoup d'émotions il y a eu beaucoup de passion wante bu leen nangu kenn di lëndëmal seen xel wala di yàq seen xalaat dama ne jàmm ci la lépp a xaj tey yàlla defaral ñu sutura président Macky Sall nangu respecté kàdduwam bu kenn yàq seen xel pour ngeen dem def defi leneen ba may président Macky Sall prétexte pour mun moom tamit bu leen defi leneen te xam ngeen fu may waxee ay ndaw ngeen yàlla may na leen xel macha allah te nu ngeen di ko waxee yéen xale yi na ngeen yéen da ngeen dégg daaj ma ne Sénégal du moomeelu kenn ku fi wootee leneen maa ngi jégalu ci kaddu yi dama ne Sénégal du moomeelu kenn ñëpp a ko bokk ku fi bëgg a woote nag mbiru naaféq na ko na ko xale yi déggee noonu na ko askan bi gisee noonu wante dama ne taal Sénégal yàq Sénégal bëgg dugal Sénégal ci guuta ndax sa bëgg-bëgg kooku wax dëgg yàlla duñ ci mën a ànd ak ñooñu duñ leen ci mën a jàppale lu ñu gëm tey mais profité waat ci occasion bi pour tàllal suma loxo yi à toute la classe politique ayca jërëjëf euh, Abdou euh, Top suka rappel rek ñu fàttali ne moom Barthélémy Dias ci jëmmi boppam moo fi taxawoon wax ne euh, président Macky Sall su posé candidature troisième mandat moom mu bàyyi politique waaye tey nag bi muy door ci boobu boobule déclaration dafa xam ne nii mi ngi sant bu baax baax Macky Sall ci décision bi nga xamante ne nii moom la jël parce que jaloog bi nga xamante ni nii moom la ñu woote woon waxtaan yi lii la mujj jur leneen li mu wax nag mu gën cee fës lool su koy que ne euh, nee na euh, li nga xamante ne ni moo di élection yi Macky Sall na bàyyi ñëpp ñu bokk même si certes am na ñoo xamante ni nii waruñu bokk kon donc moom am na ñu ci jot seppi nee na nag euh, mi ngi wax jeunesse bi si si paaxoo ma daf leen di corrompre ou pas bu ñu nangu kenn di leen dugal si guuta parce que dafa am ñoo xamante ni nii ay fekk lañ ngeen jéggal ma ci kàddu yi moom moo ko waxee ni ni mel mu nekk ay kàddu yoo xamante ne ni mm-hmm. daal doy na waa damay bàyyi maa ngi lay fay Adja. mbaa yaa ngi am jàmm. tabarkal tabarkal di la wax ni tey tabarkal la ñëw nga ci segg gi. waaw waaw segg la macha allah yii moom jàpp na la mbaay. <laughs> maa ngi jégalu Boubacar ci ni ma ko waxee nag. Eh, ndax ak góor nee sañ sa jabaru jàmbur yoon kenn la Boubacar sa ah, frère la. voilà maa ngi koy ziara. Mm-hmm. xarit Serigne Sidi moom Serigne Abdoulaye Khan Mbacke Alaaji Sanjoogu Mbeng euh, di ñaanal euh, tabarkal la ah futur maire de tey moom macha allah ah tey moom yëkkati nga ñu ba ca kaw rek dañuy waajal yoonu maire bi. door ci suuf très ah, di may ay kër di sañsay. waaw bu ñu ma ah yow doo falu. Omar day neex Omar doo falu. day neex di nuyu <laughs> di may xaalis ma ma ma jigéen. ak petit tetam. Euh, di nuyu Ami. incha allah future maire future femme de kii. Euh, Bachir waaw maa ngi koy nuyu di ko ñaan ñaan mu yegg seeg jàmm te xam ne góor nag wax dëgg yàlla bu mënta ñàkk xam nga góor gi dama ko ñëw mhm. tey ku mel ni ça amul problème mi ngi wàcc dem këram gérer normal mhm. Omar noonu ñeneen noonu mais góor gi dama koy ki nekk fii ne ci télé yi di daw war naa mën a wax dëgg yàlla fa nga nekk la fa soxna su baax wàññu dara mas naa wasulaa sa waru baax yàllaa ko wax nag ma <laughs> moom xam naa moom yàlla wax wutalee wujj dina kontaan lool waaye baax na amul problème su comme nu ma la ko waxee tout à rek damay ànd ak Omar euh, Barthélémy Dias dafa am benn affaire bu mu dugal si biir mooy que ni nee na jeunesse bi bu leen nangu kenn di leen dugal si affaire yoo xamante ne ni ay jaxasoo lay indi sinon monsieur Macky Sall dina delluwaat ci décision bi mu jëloon. yow loolu. Mm-hmm. Barthélémy bu koy seetaan. Mm. benn wax ko Ousmane Sonko waxoon. voilà Ousmane Sonko ku am ah. vision la nag. di conférence des bu yeewi mu ne Barthélémy du leader maanaam du leader quoi wax la woo xam ne ko doon kafe hmm. mais wax ji daf mel na nag day commencé firéeku jamono yi hmm. maanaam Barthélémy buñ bu woon daf mel ne ku nit ku judduwaat nit koy lii nii maanaam da ngay sentir même bu wax ji sax hmm. sentir benn Barthélémy bu kii mu mel ne li muy wax dañ koy day ruus du nekk à l'aise ci ni muy waxee ute na ak Barthélemy bu ñu xamoon bu njëkk na bu ñëwee di wax day neex a déglu day neex a bàyyi xel ci lu bari Barthélemy nag daa am lu ma jàngat ci kàddum bu tëbee ni candidat la bu mu bett Khalifa Sall. waaw. du lu mu mën a doon fii lu mu fi mënul lijjanti amul te Barthélemy ñay lijjanti ak moom jamono yi nii lañ def waaw boo déggee ay waxam nga xam ne Barthélemy looloo tax pour man. ñu bari ñu ngi naan xalifa lay liggéeyal waxuma ni liggéeyalu ko de wala boppam lay liggéeyal waaye daal bis bu ñu xëyee Barthélemy samp ndëndam parce que dafa ñoom ñëpp pour li saa waxoon ci suba benn waay rek moo leen mais waajal bu bokkul ñoom ñëpp dama jàpp ne am na nañu wërsëgu li ñuy yoot ñu jot ci maanaam bu Sonko bokkul Macky bokkul jeu bi day ibbeeku te ñoom ñi ko séq kenn yéenewul sa moroom teranga ji ku ne danga jàpp ni yaa ci jekk te Barthélemy dafa commencé di taxawee noonu loolu moom sentir naa ko ci moom. mais nooy déggee le fait mu ni euh, président Macky Sall à tout moment mën na delluwaat ci décision bi mu jël. non non xam no loolu xam nga euh, Bart nag moo wax la benn affaire képp ku la gëmal ni moom Macky Sall ñu ngi añandoo di reeroo di dégg téléphone xamul dara Macky hmm. ci li Macky Sall nar ëllëg. ak li mu nar a def même bu ko doon def du ko du Barthélémy la koy wax kon. loolu ay waxi mi la ku leen génne ëllëg fii la taxoon ni maay borom ndakaaru fii dara du fi yëngatu te dina xam te dinaa leen wan may borom ndakaaru bi mu ko waxee lan moo ci tegu lu mës a am ci réew mi am fi lu mës a xew ci ndakaaru xew gi kon du mi li ñuy déglu du Barthélemy la nit ñi di bàyyi xel di def wala ñuy dindi pour man Barthélemy Diaz bi ma xamoon ak bii dafa wute te am na lu muy ut depuis quelque temps ci communication génn wax mais li xaw a nooyal ay waxam mooy ñi muy waxal tontuwuñ ko tontuwuñ ko waaw maanaam waxam daa am fu mu jëm waaye ñi muy wax dafa mu ne dégluwuñ ko tontuwuñ ko moo tax xorom si dafa xaw a des ci ah. waxu Barthélemy mais mi bi ma xamoon avant maire yi man moo ma gënal Barthélemy maire de Dakar. Ah. parce que depuis mu jot maire bi. Ah. dafa mel na daal. bêtise rek lay def. non dafa dafa dafa teelu a suur daal <laughs> waaw dafa teel suur. na waar sooy dafa jàpp egg na daal te jugagul. Ah, te en mhm. tout cas doy na waar mhm. sax ba wax ne amul benn opposant bu mën a euh, am 30 pour cent. Mhm. Euh, fii ci Sénégal ci ay élections mu mel nii dafa am fu muy joxoñ te nanguwul wax lan la. waaw jërëjëf ma jigéen euh, Barth moom. Mm. xam naa dama doon bañ bañ a wax ci sa rubrique rek waaye kon dama naan la awma ci xalaat. waa ëpp naa def. waaw ndax Barth euh, dama seetaan barki démb mu nii bu fekkee ni président Macky Sall. Mhm. posé na troisième candidature am maanaam bu ko deful day bàyyi politique. Mhm. daal di koy waat. mais daf ko sant day gërëm ko ci waaw ko waat xam nga léegi nag nit kooku tey bu ñëwaatee. Mm-hmm. après di ma indilaat yeneen discours man bi muy ñëwee xaaruma ci Barth dara ndax seetaanuma ko wax dëgg yàlla. Mm-hmm. bi muy directem bi xaw ma lu mu ca wax fii laa xamee li mu ci wax. Mm-hmm. Bart nag amoon na sens trop am dara ci politique mais mbong gi saa di wax ci wax Idrissa Seck dal na Bart bu retourné wul nag la sëñ Moustapha si waxoon mm-hmm. dana ko dal mm-hmm. bu retourné wul Bart dootul tekki dara ci politique mm-hmm. parce que dafa jàppoon ni moom moom moom la dafa jàpp ni moom Bart mooy doxal gërëyeem la xalifa mi mu àndal la mais am na lu ko yàlla boole loo xam ne li ne ci moom moom la man ku ma tegaloon kaamil a waat ko fii Bart bu àndul woon ak Yewwi Askan Wi du doon mairie gannaaw dogal bi yàlla nag yàllaay dogal mm. mais ci politique ci zahir ni yàlla di maye moom bokk na ci ñi nga xam ni bu àndul woon ak yeewi askan wi ak Ousmane Sonko du doon dara ci maire ci ci Dakar mm-hmm. Bart fàtte woon nañ ko boo seetloo mm-hmm. mais géréewam am na lu mu joué nag Bart ku mën a joué la <laughs> jàmbaar la barte acteur la mm-hmm. wax dëgg yàlla ku jàmbaar la parce que ni mu joué ci Ousmane Sonko wane xaritoo wane xarit bu fidèle la saaga xataraayu tey muy woote nee na réew kenn du ko taal mais tey tuddul que maa ngi dégg mu. du tudd non moom du euh, tudd tur Ousmane Sonko non non sax la gën a jox. Euh, non valoriser tey ci déclaration du tudd sax turu turu Ousmane Sonko du ko tudd léegi nag man sama problème mooy. man ruus naa damay wax ne ci àdduna su ma naree dund ak tey par exemple Bart li mu dund ak Ousmane Sonko ba am li mu am. Hmm. man su ma ko naree dund ak xarit bu ma yàlla booleel. Hmm. maa ngi ñaan bis boobu man yàlla bu ma ko fekkee ah, parce que ñàkk ngor la hmm, ñàkk maanaam ñàkk ñàkk ci la daal boo xam nit ki ànd ak nit ki di xeex ba am dara mm. tey mu nekk sa meilleur ennemi nga xam ne ñi moo ko sox tudd ci ci ci télé mm. wala ci rajo mm. di ko tuddee nitu fitna bu nee nii nga ni moo ni ko dee sa yaay juraat te mosu koo wax mu ni mooy bu mu bokkul kenn bokk te mosu ko wax Ousmane Sonko laa mës a laa njëkk a dégg mu ni Khalifa Sall ak Karim Wade nañ leen delloo seen dombal tànk nañ leen delloo seen cër ñu bokk ci élection yi ca boo seetloo ca 21 mars ca ba mais kooku nag tey yii muy wax ni yëpp na wax dëgg rek te honnête bi muy taxaw kere di saaga policier yi Ousmane Sonko bokk na ci ñi ko doon dëfal ak di ko dugalaat ci oto bi mm. ba ñuy xotti yërëm est-ce que violence bii muy def ci dëkk bi kenn ci acteur politique mas nañ koo gis mas nga gis acteur politique bu saaga policier te moom taxaw nañu koy jël muy saaga policier yi naan ay nangam ngeen ki leen yónni faale wu ma leen fii nii biñ koy woo biñ koy mujjee convaincre acteur politique bu yor fetal joxoñ waaw kon bu dee am na ko bëgg a taal réew mi mm. na wax ak président comme ay discours am. Mhm. waaw mais maa ngi koy ñaan daal na bàyyi yi muy def daal yi dafa dafa maanaam dafa suufee daal mhm. te Barth war naa ëpp yi. d' accord en tout cas liy feeñ ci seen i gët moom <laughs> bu dee looloo ne ci xol yi moom doy na waa su kay. xam nga euh, politique dafa doy waar. Mhm. ndax ku ne rek ak fa ngay sànni. moom Barthélemy li mi ku ma kii la nag wax dëgg yàlla. da damay damay déglu ay waxam. Euh, déglu naa ko ci euh, MNF. dem bërki dem tamit déglu naa ko ci TFM. Mm. ndax ku bi président Macky génnee wax na nee na moom moo initié li nga xam ne moom moo di. dialogue bi lii lépp wax na ko. waxoon na tamit ni li fi amoon dootu fi amaat am na fi mu metti lool bii ñëw gën a tàng. Mm-hmm. donc muy nit koo xam ne àndoon nag Sonko. Mm-hmm. ñëpp di ko gis bu solee trépido ànd ak moom ñoom ñaar ñu ànd di kii bu ñu tourné ba mel ni ay xajam muus. Mm. ba tey lu ne da ci am. Mm. mun damay daal di jaaxle kon dañuy wax ba tey politique moo demee noonu. Euh, kii dafa wax léegi lu am solo nan xaar mu mu posé candidature wax na ni doo du ko def nag wax dëgg yàlla loolu dégg naa mu wax ko ni du ko def. nee na moom du ko def. am na ana ay wax du ko def ndax nee na euh, tant que Khalifa Ababacar Sall mi ngi si du ko def. donc voilà voilà ragal ko ndomba yoon bañ koo dóor xalifa bi ma gis loolu lépp ci politique la politique dafa doy waar nan bàyyi rek fa ñu du mu njëgi gëtam mm. ndax lu ñu fi wax rek ay wax waxeet la mm. voilà mm. président Macky Sall li mu wax nag nii bu ñu bàyyiwul wax ji président Macky Sall dina wàññeeku waat ci li mu jël déedéet as gor du def loolu mais est que amul lu mu xam xamu ci dara parce que président Macky saal dina wax ba pare wax askan yépp ni leen bàyyi naa du ma def troisième mandat kon donc wax bu sew a sew du tax mu ñëwaat li nga xam moo di damay def troisième mandat amul fenn. <laughs> en tout cas doy na waar Alaaji mu mel ni euh, wax na ba junj wax euh, président Macky Sall nee na ñëpp bokk waaye ba mu ci tegee loolu nag mais fu mu am rek am na ñoo xamante ne nii mënuñoo bokk parce que yoon am na ci dëkk bi ak ay loi yoo xam ne tëral nañ ko fi mu mel ni kàddu gi aussi am na fu muy euh, dem. ma bëggoon na ñëw ci loolu. waaw xam nga <laughs> eh, Barth Sonko moo tooñ boppam. Hmm. li tax mu tooñ boppam léeg-léeg boroom kër takkal jabar. takkal jabar doomam. Hmm. doom ji xëy def ko moroom. <laughs> naan ko papa nag del xoolaat ni ngay doxalee wala ni ngay kiiwee ndax ni ngay def ak ndax lii ak lii parce que xam na lu papa wàccal sa baab defal lii defal laa defal lële waaw loolu la quoi maanaam mbubb mi mu ko solal moo ko ëpp est-ce que njortee woon na ko noonu nag non njort amu soo ko da koo solal mbubb hmm. mbubb bi dafa ëpp Bart Bart fi mu toll nii defe na ni hmm. bu asamaan si dee daanu sax bu nee nii asamaan si taxaw maanaam Bart fi mu toll nii li mu ne maanaam la xamatut lii lan la moo tax day déliré rek fi mu barte li muy wax nii kuy déliré rek la euh, te Barth moom moo gëm ni moom moo njëkk a gëm ni moom moo gëm ni Ousmane Sonko bu demee premier tour day gagné. Hmm. waaye Ousmane Sonko waxu ko ko. Hmm. Ousmane Sonko dafa wax ay ñooñam ne leen benn parti mënu fee gañe premier tour. loolu la soo ko wax ay ñooñam. mais Bart moom moo gëm ni Ousmane Sonko bu demee premier tour day gagné. parce moom moo ko parce que xam nga lu tax dafa xam ni ki ko solol mbubb mii am na lu ko yàlla may. parce que mbubb mii moom waru ko woona a sol. Mm. maanaam Bart da ngay dégg ci waxam moom fi mu teg Ousmane Sonko. yaa ngi dégg maanaam lim lay wan ne la nanguwu ko ci ginnaaw nanguwu ko. nangoo fa ne waaye nag li mu lay wan moo tax buy wax du nekk à l'aise parce que xam na ni li muy wax moom gëmu ko parce que bu doon lu mu gëm la geste yeeg yépp dina ñëw mais bi mu daan wax toog ci ginnaaw Ousmane Sonko boobu dafa gëmoon li muy wax li mu doon wax lu mu gëm la mais léegi li muy wax ni gëmatu ci leen moo tax buy wax mën mënta nekk à l'aise te xam na ni ñi muy waxal gëmuñu ko xam nga parents yi mën ngay wax sax loo xam ne yow gëmoo ko mais bu ko ñi koy ñi ngay wax bu ko gëmee mën nekk à l'aise parce que da nga naan yaa ngi leen di nelawloo. Mhm. da nga leen di gën a yokk nelaw. waaye bu la leeree ni ñi ngay waxal ñi ngi xuppi di la xool di la déglu di xam ni li ngay wax yow gëmoo ko xam nañ ni gëmoo ko te yow xam nga ni ñi ngay waxal xam nañ ni gëmoo li ngay wax mënoo nekk à l'aise loolu mooy li nga xam ni moo dar Barthélemy léegi nag leneen li nga xamante ni bi ñëw na ci euh, maanaam Barth léegi dafa mel ni sax ku ñuy yabal ne ko demal xoqatal gaa yi ne leen bu ngeen defee nii mën naa cee génn. xal yéen xale yi mu ñëw di jàllale message boobu. xam nga bu nee xale yi bu leen kenn dugal. sinon kon xale yi ci bitti lay waxal. Mhm. waaye bu fekkee xale yi dugg ba pare. Mhm. ki du ki nekk ci biir ba pare. <laughs> kooku est-ce que war nga koy wax naan bu leen kenn dugal. kooku bu leen kenn génne moo moo tax gaa yi comprendre uñ ba tey ni ñu war a waxtaanee xale yi. Mhm. maanaam. dañoo nekk foo xam ni bokkuñu fu ñu ne. moom laa doon wax son bi tey suba ma ne ko gaa yi. ñoom Bart ak ñi ma àndal ay iPhone 6 lañ dafa am ay mise à jour yoo xam ni doxatut ci ñoom. xale yi ñi ngi ci. beneen niveau yaa ngi dégg donc nag bu ñu xamut loolu. moo tax pour ñu communiquer problème lay nekk maanaam ñoom li ñuy wax xale yi. def leen ndànk bu leen kenn dugal. xale yi ñoom lañuy yërëm maanaam di xool nit. ne yaa ngi koy yërëm. dimbali yaa ngi koy nga ne da koy dimbali mu gis ni ngay naxee mu xool yow. tey bi bu la xoolee day xam ne yow dangaa am prix te moom amul prix moom miy def loolu moom fi mu taxaw moom day wax ne man aw ma njëg yow mi am njëg mun laa def nawle du la déglu. mooy mooy tolloog li Pape Diop doon wax. parce que léeg-léeg nga gis nit naan dafa feebar. Mhm. fekk reen yu la faj lay wër. voilà xam nga démb yéen a bokkoon même discours. Mhm. yaa xale yi. bi amee lu neex. nga soppi discours nga bëgg a wax xale yi ne leen yéen ñii kat kii te xale yi gis ci diggante bi li xew. Hmm. maanaam boo ñëwee di wax xale bi dalay lay yërëm quoi day wax ne ndeysaan xool ko rek ndekete nit mën na toll fu xeebu fii. Hmm. c'est loolu mooy problème Barthélemy mais mais Barth ak tolluwaayam est-ce que war nay wax bay wax. Euh, Barth amul tolluwaay turu turu turu naafeq. bàyyi taal bàyyi leen xam nga c'est que seen problème <laughs> yéen yi ñuy takkal nit ñi ne la yaay meeru fii wala yaay kii ngeen di defee ni mooy tolluwaay mbir mi du loolu nit ki xel ak jikkoo la. dafa am yoo xam ne ci la ñuy natt doomu aadama. su may natt sooy bu mii di ko natt ci loo xamante ni bii ndoom ba tànk la bu ko Omar takkal. Mm. yaa ngi dégg. wa ilaa ndombal tànk la goo xamante ni bii ñun ñii dañoo dajaloo gëm Omar mii Omar mii ne gëm na la ndax ni nga mel ci moom mu fexe bañ takkal la ko. su mm. takkal ko sooy bu sooy bu ñëw di doxee neneen. yaa ngi dégg mais bu ñuy natt sooy bu duñ ko natt ci ndombali. naan non mooy meeru nangam. lu ko ko def. waa moo moo moo naafeq bu muy utiliser. waaw moo naafeq parce que dafa xamul lu moo naafeq di peser sax. Mm. boo ko laajoon lan mooy naafeq sax xamu ko. Mm. wallaay xamu ko. boo ko waxoon ne ko Bart lan mooy naafiq boo ngeen wéetoo nga ne ko lan mooy naafiq wax ma lan mooy naafiq xamu ko xam nga moom xamul ni. Mm. bu firee naafiq dëgg-dëgg. Mm-hmm. du fa du yaa ngi dégg bu fekkee ne li ñuy wax ne mooy naafeq mm-hmm. ma ñëw ànd ak son mu ne ko yow laa àndal mm. fekk àndumaak moom mm. gëwuma ko loolu mooy naafeq mm-hmm. kon moom xamut lan mooy naafeq donc moom mu naafeq daf ko war a teg fa vocabulaire am war a tujjee est-ce que comprendre nga c'est que njuumte yooyu mooy yi nga xamante ni bii moom lay def lii nga xam ni nag moom la yore moo tax bi bi Omar waxee ne Bart euh, candidat Bart xalaatut candidat fi mu toll lii mu yor nii moom fi mu toll lii nguur la moom wax na ko nee na état la moom nee na bi état la nee na la xam nga Bart dañ koo dóor xaw ma mairie bi ñaar xaw ma ay ñaata million ñaata milliards la. Euh, budget bi euh, cinquante milliards lañ ko dóor mu miir. Bart tey boo ko ñëwoon. Mm. jox ko li ah, Bart sa Bart li ñëwoon moom la Aliou Sall géré bu ñu ko ko joxoon Bart day katakay yat lay yor di wër nit ñi. <laughs> ah waay ndaw Sall di leen duma. <laughs> de. bu doon six mille milliards yañ doon wax Aliou Sall nee nañ Bart Lady Dias teg nañ ko ci loxo wóor na yàlla yat lay yor ku ko ku dënal duma réew mi moom boo ko joxee. Bart mété lay jënd. mais le fait nangootuñu. <laughs> taxaw buntu pare de bu kenn léegi ñoom nangootuñu tudd turu waa ji sax même. xalifa waaw booba lañ koy tudd waa xam nga ko invité. Euh, ma wax la leen ma juumul. di ko wax ci mbirum Sonko. ma la ma la leen ma jigéen. Mm, mm. le fait que nangootuñoo tudd turu Ousmane Sonko. Mm. loolu dafa am lu muy def. maanaam gis nga bés bu may ignorer mbir. loolu mooy wane ni nit ñëpp loolu lañ ciy gis maanaam ñoom saa yu ñu waxee ba pare euh, seen wax Sonko ciy gën a fees waaw buñ ko tuddoon sax peut-être nit ñi mën nañ bañ a bàyyi xel ci mm. li ñuy wax ci moom mm-hmm. waaw xamoo xamoo lu am solo mm. maanaam liste yeeyu Sonko moo waroon nekk tëdd liste bi bi dindee photo sunk ñoom ñëpp ci leen falu. koo xam ne taxandeeram moo lay fal jëmmam fu mu la mën a yóbbu. xam ne xam ne dama na dellu si nag. xam ne xam xam. damay tënk 30 mooy nit ku la ci xam ne ku la tingoom nga sut ko. Mm. nit bu la tingoomee da nga koy sut. foog ni yaa ko gën a njool. d'accord mais bis boo wàccee rek tuutiwaat ko. tuutiwaat waaw pour man foofu lañ toll ak Sonko te Seydou Lamine Niass daan wax rëy ak neew yi du benn. d'accord jërëjëf gars yi nag dañuy neew yi foog ni doon rëy. jërëjëf jërëjëf <laughs> Omar ak euh, Sandiogou analyse pertinente na euh, tey euh, Barthélémy Dias war na laa déglu bu baax a baax te aussi nit day sàmm kóllëre nit ku la topp fenn aj la ca kaw loo def leneen lu dul topp ko rek yaa ngi ci erreur te moo naa fekk aussi war nañu bàyyi xel bu baax a baax di ko utiliser si yenn wax yi yoo xamante ne ni ñëpp ñu ngi lay déglu kon nag euh, Adjaratou Soukeye Mbaye lii la ñu indi woon tey ci actualité du jour. di jox dig daj ci suba ak incha allah rabbi euh, jërëjëf maa jigéen ci li nga xam ne rek moom moo di actualité du jour bi donc ñu dem ànd ak euh, ñi nga xam ne rek moo di waa Régida di ànd ak sponsor leader yi dañu ñëwaat. wutik solution ci njiital alaaji Sanjoogu Mbeng ak Sohaybu Jóob ngir dëggal ak wéral ni suñu garabi cosaan yi lu wér la li waral seen boutique solution juddu ngir jële fi bépp xeetu caay-caay ci wàllu fajum cosaan ndax nit lekk alalam joxe ay garab yu wérul looloo waral ci diirum ñaari at yu manqué tuuti seen boutique solution di def ay résultats yu ama am solo biir réew mi ak bitim réew ci garab yi ñu leen di bëgg a limal ndoxum siit yi amuñu ci moroom hémorroïde bi nëbbu ak bu feeñ góor gu néew kàttan ay garab yu wóor te te amul benn effet secondaire fer moytu leen garab yi ndox yi estomac dañ koy faj ba mu wér garabu asthme bu efficace même boo amee woon asthme bay piqué crise ñëwal fii ci boutique la solution bépp xale wala mag buy gént di tuur ndox ballottement tànk buy xar ba borom mënta sol ay ferme li jaaxal àddina bi yépp nag muy raay mu sedd bii ne ci boutique la solution lépp luy douleur ci yaram boo koy raay mes lay def am yeneen yeneeni mbir ci biir nag moo tax ñu naan ko raay mu sedd plus jaloore ak résultat yu la boutique solution di def tax na ñi ngi fépp ci bitim réew am na ca France États-Unis d'Amérique Canada Italie Espagne ca Gambie ca Angleterre Allemagne ñoo ngi en face Walfadjri ngeen mën a jot boutique la solution ci 78 426 66 77 wala 75 630 50 50 boutique bi xaatimul listixaarul seetul su ngeen bëggee dégg dëgg daal ba boutique la solution juddoo la jaay garab yi bon ak naxaate jeex. Sénégal ka fay kan gi yegsi na fay say facture moo ci gën gaaw jëfandikoo. teg jàmm yónnee ak jot xaalis bu gaaw te wóor kàppee la waaw waaw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 jërëjëf Alaaji Mamadou euh, Alaaji ñu nekkoon ci li nga xam ne rek moo di suñu sponsor àndoon ak waa CAPE. CAPE transfert d' bi gën mën fii Sénégalais yi ñu di leen wax ne leen daw leen wutali li nga xamante ne bii mooy seen moomeel nit ku ne daa war a bëgg boppam bëgg boppam nag tàmbalee na ci bëgg li nga xam ni say doomu réew teg nañ ko. Mhm. loolu lu am solo la ak ak solution bi solutionné. macha allah Soukrans boutique solution en face Walfadjri la nekk di yëngatu ci garab yi nga xam ne ñooy garab yi ah boutique solution moo fi man bokkut ak ñoom sénégalais yi ñoo waxal seen bopp ni ay garabam mooy yi fi gën. kon ñuy mhm. wax sénégalais yi ñu daw wutal si garab yi boutique solution jàmm rek la ñuy am. ko mën a ki koy jéem dunu benn te doomu mm. réew mi ko def jërëjëf. Ah, donc ñu ànd ak ñi nga xam ne rek moo di waa Régida di ànd ak Assane Messa da ci doxantoom. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax euh, si émission bu mag bii nga xamante ni mooy li ci mbedd mi di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel euh, télé bu mag bi di Walf Fadjri ak site bu mag bi di Solution TV émission bu mag bi di takk soo tey ji maa ngi ànd ak Ablaye waaye damaa génn si buntu kër gi rek gis naa fi ay nit ñu baree baree baree bari bari ñu taxaw mel ne ñoo xamante ni am nañ lu leen jaaxal wala boog ñoo xamante ni mel na ni am nañ lu leen metti wala boog muy ñoo xamante ni am na loo xamante ni bëgg nañ koo dénoncé te muy lu gaaw a gaaw loo xamante ni njiitu réew mi président Macky Sall moom lañ ci joxoñ ñaan ko si nu mu gën a gaawee mu taxawu leen si seen jafe-jafe yi nga xamante ni am nañ ko ba tax ñu ñëw fii si buntu wal fajri ba séene ko jàmbat. Eh, teewaayu jaaxle la teewaayu njaqaarele eh, teewaayu xamoo noo def teewaayu it am yaakaar ne comme xamoo noo def fi nga am yaakaar ne boo fa demee ñu xamal la sa yaakaar pour ñu Eh, lijjantel la sa jafe-jafe problème bi mooy ay suñuy taalube ak suñuy doom ak suñuy rak ñoo nekkoon ci cité bi yàlla dogal ah kenn ci ñoom jëtul bés boo xamante ne dañ la leen yaa ngeen fi jóge wala ñu ne leen fii dañ leen di jox délai wala leneen ñun daal dañoo xëy a xëy ay quatre heures du matin ñu egsi eh, te foggu nit ñi ñii dañuy yeewu selmuwuñu sax mu ne leen jóg leen dañ leen di yóbbu stade waaw ñu jëlee leen fa ñëpp. dem fan la woon fan la. cité bii na nga xam ne moo nekk cité. Eh, Darou Salaam 2 waaw cité Darou Salaam de Colobane wala. Yaraax ah, Yaraax la. léegi biñ leen jëlee foofu ne ku bugg a jël sa saak sax dañ la naan bàyyi fi saak bi nga bugg a tëj sa néeg mu ne ko mu ne la bul tëj nga jël xaalis ñu nangu ko léegi nag noonu lañ def yóbbu nit ñi fap yëpp état tëj leen foofu bi ñu retourné nag lañ jël ay kamiyon di yëpp bagage di ko yóbbu. di ñun nag wax dëgg yàlla am na ñoo xamante ne nee nañ yow dañu koy jaay ñi di wax leneen ndax man eh, comme kilifa laa ma wax lu ma leerul mais quel que alfa alpha yëpp nañ leen ci camion daal gaz yeeg ceeb yeeg suukar yëpp yóbbu nañ leen waaw léegi nag bu ñu defee noonu léegi lañ ñëw nag garde foofu yëpp kenn mën da dugg. léegi ñu yóbbu stade anañu. ñi yóbbu stade nag mujj nañ leen a bàyyi mais dañuy ñii dañuy fay ay six mille ñii dafay ay trois mille lañ wax. waaw ku ne dug foofu boo buggee génn da ngay fay ñor doo génn. léegi fan lañ jëm ñooña. loolu nag ñu ngi ci mbedd mi amuñu fu ñu jëm man nag euh, en personne li nga xamante ne moo ma ci gën a métti am na ci ñoo xamante ne seen bot dañu wàññeeku ñu nga ca mbedd ñi amuñ fu ñu jëm. li xew journée le deux boobu. dafa nekkul situation bu garab si biir Sénégal parce que say peuple say propre population waroo leen xeex waroo leen toroxal. ñoo xam ne defuñu ak yow benn résistance tey jii bu ñu waxee ne ñooñu tey jii bu ñu xalaatee ñooñu ñooy génn da si biir Dakar bi di lakk ka tojja ka sànni xeer franchement trompé wu nañ. parce que ñoo xamante ne ñoo nga fekk leen à 4 heures du matin wala 5 heures du matin di leen di yëkkati di leen di toroxal yàq seen bien jël seen alal nangu ko. te ñooñu xeexu ñoog yow xuloowu ñoog yow jusqu'à la preuve du contraire xeexu ñoog yow xuloowu ñoog yow tey jii ñooñu nekkuñu ay nekkuñ ay bandi te ñun ñu nekk na nekk ay dëkkandoog Macky Sall tey dëkk Fatick ñun mënuñoo nekk ay wayu ndax ndax ñun si biir kenn gënuñoo doon ay sénégalais bu nekkee ne ñoom nag ay étranger yu fa dëkk particularité yooyu tey jii bu ñu leen bañee si biir si biir quartier boobu aussi ñoo ngi fépp si biir Dakar xanaa Dakar yëpp la ñuy xanaa Dakar yëpp xanaa la ñuy toj topp toj Medina tey jii ay étranger ya fay dëkk tey bëri nañ. nañ dem toj foofu almadi ay étranger kese ñoo fa dëkk presque ñoo fa ëpp alal xanaa dinañ dem toj foofu tey jii liñ def daal mooy lan population ya fa nekk ay nit ñu vulnérable lañ malgré bari wuñ kàttan bari wuñ doole xëy na ñu fekk leen foofu foqati seen seen droit civique foqati seen alal foqati seen lëp yàq seen dëkkuwaay ñoo xamante ne saatuñu fenuñ nekkuñ defuñ benn ñaawteef nit ñoo xamante ne c'est des des nobles ñoom ñoo dëkk foofu. jërë ngeen jëf mbokk yi kon ñu ngi leen di gërëm di am mbégte contentement bu baax a baax gis ngeen ko nii ñi nga xam ne ñoo nekk sunu ginnaaw en tout cas sant nañ leen gërëm leen président Macky Sall nag jàpp nañu ni dafa dem toj foofu pur sécurité ñi yaakaar ni lu ne lay def mu bàyyi ña nga yaakaar ni ñoo ën ñàkk sécurité mu dugal leen si dëkk bi lijjanti wuñu leen loolu yaakaar naa ne loolu lañ war a na dañ leen a jël yóbbu leen foofa pour ñu nekk si sécurité waaye bu ñu leen jëlee bàyyi leen si mbedd mi loolu du sécurité kon nga taxawu say doom taxawu sa njaboot taxawu sa bépp moomeel comme ni ngay taxawee sa doom Amadou Sall ndax ñii ay kilifa lañ ay borom kër lañ ay responsable lañ bu ñu leen jëlee sànni leen si mbedd mi ñun lay gën a metti sax waxuntuma la ak yow kon nag ni mu la war a mettee noonu la ñu mettee noonu la mettee ñëpp Sénégal benn bopp la lu daal ci kon liñ leen gaawal wutalal leen ay dëkkuwaay yu ñoŋ ay nekkin yu ñoŋ ñu njaboot jërë ngeen jëf jërëjëf Assane am na solo Alaaji ñoo ko gisandoo ci ñi nga xam ne rek moo di waa boobu boobule cité Daaru Salaam. waaw macha allah euh, xam nga ki démb. Mhm. lii la war fa di jariñ euh, askan wi. Mhm. defe naa ne lii moo tax tamit askan wi euh, gi taxawu ko ci jafe-jafe. yi nga mhm. xamante ni ci la nekk. parce que ñii bi ñu jàqee dawuñu dem fenn waaye dañ ñu gis ni. wal fajiri mooy seen vitrine ñu daal dee ñëw. ngir seen problème saafarawu defe naa ni autorités yi dinañ ko suivre dinañ xool mhm. te lii mooy li nga xamante ni bii jàpp naa ni moom mooy li gën ci état mhm. nit ñi am seen naqar am fu ñu koy waxee ngir ñoom ñu mën koo dégg ñoom kilifa yi parce que par exemple mën nañu bañ a jàllale message yi mhm. waaye bu ñu seetaanee télé bi gis ni problème am na ñu gaaw gaaw wut nuñ ko saafara mhm. yal na yàlla saafara allahuma amin Omar mm. boo yuuxu moom fa nga yaakaar wàllu rek mhm. moo tax ñu ñëw buntu Walfadjri mhm. léegi nag lu ci mënti am mooy lii fépp la am ci àddina dëkk yi gën a développé ci àddina sax da nga fa fekk ay sans abri mhm. des fois nga dugg Dakar fi gën a rafet nga fekk mhm. nit tëdd fu mu warul tëdd nga xam ne jamono suñu borom moo sàkkee nit ñi noonu ñëpp yamuñu il faut que mu am mhm. ñu tumuranke mais ñooñu mu lan mbaam gàtt na ci gur gi la bokk ñooñu gur gi da leen war a bàyyi xel mais aussi jëm leen a taxawu mais ñun fii sunu problème li ma jàngat bi ma leen fekkee buntu Walfadjri suba mooy ñun duñ régler problème ñun dañuy déplacer problème maanaam problème bi day nekk fii ñu toxal ko fii mais duñ ko régler problème boo ko réglé wul déplacer ko problème bi du fa jóge fa lay nekk chaque jour waaw parce que ñi comme li Assane wax ñi ngi ci mbedd mi ah, lay gën a danger nan leen jàppale lu bare bari sooy bu waaw xanaa man ma daal di woo rek bonne volonté yi ñoom mhm. xam nga suka am na koo xam ne tey mi ngi ay kër la ñuy wax waaw waaw léegi nag ñooñu ah nañ jël ci kër yooyu jaamu ci yàlla am nañu tëji kër waaw am na solo waaw am na solo. nañ ci jaamu yàlla rek mm-hmm. parce li métti na daal. Mm-hmm. boo gisee vidéo yi xale yi ndaw yi tëdd seen kaw yaay. Mm-hmm. sa yaram day daw daal. borom kër yi daal yi nga xam ne bari nañu kër nañ ci jaamu yàlla. jërëjëf ma jigéen. waaw suka man euh, yemuma ci vidéo yi rek parce que euh, fan yëpp damay wàcc di dem Thiès. saa yi su ma jotee autoroute bi rek da ngay gis euh, ni ñu sonnee ñii ngi yennu seen bagage yi ñii seen matelas yi sonn nañ ñii boot seen i doom mu leer na ni ñii nii euh, jafe-jafe yi ñu am il faut mhm. état bi tamit euh, wallu leen gis naa tamit gendarmerie yi doxalin bi ñuy doxalee ñoom mhm. am na yenn yoo xamante ne nit soo ko fekkee jëlee yokk ko jafe-jafe mhm. am da nga ko war a assister te aussi ñoom waroon nañu fexe ba même bu ñuy dem di setal foofu ñu jéem a teg ay camps yoo xamante ne nii en attendant ñu ñoom ñu mën fa nekk ba ñu mën a lijjanti seen i problème wala ku ci nekk am foo mën a dem mais nit ki doo ko fekk fi mu nekk rek nga jëlee ko fa bàyyi ko ci mbedd bi tamit muy errer comme animaux yi ni ñuy def am na nit dafa am ay droit euh, fi ñu nekkoon certes bu bonee it ñu ngi fa doon fanaan di fa suturlu mhm. kon nag bu ñu xaawi seen sutura sukkay mbay macha allah am na solo euh, di ko jaajëfal ko nga xam ne rek moom moo di Assane Mesere ci liggéey bu rafet boobu mu def ak nga xam ne rek moom moo di Abdoulaye Diallo donc ñu dem régie daal di ànd ak El Hadji Mamadou Diouf ci victime di net ñu ànd ak son bu jërëjëf Modou euh, son bu waaw su lan <laughs> tey tey de dugg foo xam ni moo ne ci internet bi di lëmbe mm-hmm. euh, tey Ablaye fay kuy Ablaye Faye kuy Ablaye Faye Ablaye Faye sëñ eh, bi eh, dawul coow quoi. Ablaye Faye. Ablaye Faye. Ablaye Faye. Ablaye Faye ah, xamu leen. Ah, déedéet kan mooy Ablaye Faye jotagul ci boobu de. Ablaye Faye xaritu Wally Seck. Ablaye Mbaye wala. Ablaye Faye te mu dugg temps yii passé jàmm. Ablaye Mbaye Ablaye Ablaye Faye. Ah, ay son yi. Eh, mais Ablaye Faye xamoon nga ne Ablaye Faye la tudd. <laughs> ñun xamuñu am xam am na beneen tur mais dama <laughs> fàtte tudd sant non Ablaye Mbaye baayam feeñ na baayam feeñ na loolu mooy lan baayam nee na bu dee dañ ñëwoon euh, aw ma baay maa ngi ni deewuma baayam feeñ na déedéet Pawlish musul wax ni amul baay non waxul baay waxin la naa ne dafa am lu xew am ñu dem te baayam demut magam demut rakkam demut kenn demut mu ne bu dee dañu leen a wax ni leen ni baayam nangam deewuma maa ngi nii léegi nag beneen bi ci des mooy moom ñoom sax duñ victime wax dëgg yàlla Mame Makhtar Gueye Jamra mooy victime. mu nekkee victime. Mame Makhtar yëf yi dafa bàyyi ji sax tudd na ko ci biir wax ji nee na Mame Makhtar li mu def neexu ko te bis bu dajee ak moom dina xam ne li mu def naqari na ko maanaam daal ñi ngi taf Mame Makhtar ci réseaux sociaux yi di wax ni. Mhm. mu baal ma nag daal lu tax mu mën a dugg lu yoonam nekkut. Mhm. bay jël doomu jàmbur dem nekk ci palaasu baay dem di di ko ñaanali jabar. moo tax asan ci suba asan suba mu dóor ñu benn lancé benn pic maanaam man ak saa nee na bu ñu ko bañee ñaanale asu saaxo mu dem ca Mame Matar Gueye mu ñaanale ko ndax Mame Matar li muy xaar mooy ñaar ñu bëggante si muy benn ñaareel bi dinañ ci ñëw déglu ko man nag ma koy ñaan Mame Matar comme da ngay xeex wàllum góor jigéen mm-hmm. waxuma ni nag euh, Ablaye Faye góor jigéen la waxuma loolu mm-hmm. mais góor du takk ay jaaro te Mame ba bi muy mayee sëy bi waa jaa ngi takk ñaari jaaro ma lay ñaan rek nga wax ak ab Ablaye fay ah? ma jigéen lii laay wax jaarul nopp ah, bën nga sañ ci waaw ma jigéen rakkaaju nga trop boo du dëgg deel boo dul déglu deel déglu <laughs> kon nag ma lay ñaan ma mataar Ablaye mm. fay mm. nga wax ko mu tekki ñaari jaaroom mm-hmm. yi di ko wax ni ko jigéen ay takk ñaari jaaro waaye góor du takk ay ñaari jaaroo waxuma ne nag góor jigéen la moom ab Ablaye fay waaye nag lay def fi jigéen te loolu baaxut ñu dem déglu baayu Ablaye Faye ñu gën ko xam ci Pawlish Mbaye après ñu dégluwaat dem déglu maam Matar Gueye joxe na version sama taaw Pawlish am na mag man Ablaye Faye laa ko tuddee man ci internet bi laa dégg ne sama doom day takk jabar mais nit ki sooy takk jabar xanaa sa papa di dund di nga ko ko yëgal sa papa bu dee sax am na ay rak nga ànd ak sa rakki papa ñu ñëw présenté ngeen moo sa papa mais da nëbb sa papa di yeneen ni papa pour ñu takkal la jabar fan la Pawlish teg te jotewuñ dara man nag damaa kontu ñu ko ñaanali jabar parce que nit ki soo nekkee ngi dund wala dund dina moo yor koy boppam beddu boppam ca weer koo lañ gëj a wax waaw ca weer koo laa gëj a dégg Ablaye kon takk gi yëgoo ci nii laa ko déggee ci ci portable yi laa ko yëgee nii laa ci yëgee te muy sama doom ñu koy santale yeneen ni sant ca ma sant fay man loolu moomu ci gën a yéem te jotewuma ak Ablaye dara ah. léegi la ma mujj woo naam nag ma baal bu ñu seet bu ñu àdduna boole àdduna boole wu ñu yaa ñu boole parce que yaa xañ ma cër bi ma moom yaa ma ko joxul parce que sa bàyyi su amuy cër boo xam ne pour takkali doomam jabar la am nga xañ ko ko kon yaa ko xaajaleeg moom yor ko ba mu màgg mu xëy am ñaar moom rek beru

ñi ma bokk lañu kenn du ci lekk ñaar dëmmu Ablaye man Ablaye Faye laa ko tuddee ñu man Ablaye Faye laa ko tuddee jotewuñ dara léegi la ma mujj a woo di ma baalu wax ma ne ko tooñoo ma da ngaa def musiba rek adduna moo la nax parce soo amee sa bàyyi bàyyi ko fi même su ma doon raam sa war nga maa mën a wonee man su ma doon raam nii Ablaye war na ma mën a wonee mais heureusement maa ngi sant suñu borom bu baax parce maa ngi dundee sama ñaq mais li mu def tegoo ko fenn képp ko ko may jabar gisoo ba fay la sant Ablaye Faye laa ko tuddee am naa ci lu ma naqari nag parce que amoon sañoon sa doom yaa ko ñaanali jabar mais ay jamraag yooyu yëpp teguñu ko fenn parce nit ki boo ko ñaanali jabar da koy laaj an see waajur mais ki ko ñaanali jabar xam ne ne li mu def tegu ko fenn te diineem dafa des nag maa ko wax man Ibou te bu ma jàkkaaroon nag moom dina xam ne am naa lu ma naqari ci moom Ablaye tëbul wadd ci asamaan bi da wadd nii ci suuf am naa rakk am naay mag nañ ñëw ñu sama mbokk doxal ko mais lu tax mu bedd ñu rek moom jéem ko lijjanti lan moom defaroon Ablaye de day yàq Ablaye parce que da koy xaajale ay famille am fu ni ma ko déggee rek na ñoom lañ ko déggee mais mu yóbbu ko beneen kër Ablaye kuy may njëkkee kan la koy may Ablaye bu wax buy ngénte ku koy kuy dem xam nañu fa la doon amee coono mu feebar dañ leen ko andi ay ay mbokkam rek la ñuy am te bu ñu demee bu jaaxle ay mbokkam la ñuy laajte te boobaa ci fii lañ koy indi su boobaa nag dina xam jotawuñu Ablaye dara de ñaar dërëm ma ko beewloo mais maa jur Ablaye deewu ma de képp ku mu taxaw ne damaa dee deewu ma maa indi di dund man sant ma ba fay laa sant bu fay laa tuddu waa ñoo ñu naan ko ay tey moom la ñu wax leen turam dëggantaan xamuñu Ablaye moom laa xamul man xamu lu indi ba man jege maa ba parce que du ma pël man séeréer laa man lu ko indi ba man laa xamul lan la kooku mooy woy juru Ablaye Faye ñu naan ko Pawlish Mbaye gannaaw ba nag maam maxtar Gueye Jamra mi ngi ci tudd ni moo def daal ba jaxasee kër jàmbur def na ab réaction ci benn site internet ñu dellu si waat. waaw Pawlish day sànq ba tey maa ngi koy jéem a mhm. euh, dama ko jotagul. Mhm. li ci ëpp day nekk communication wala jàllul. waaye duma tay parce que il faut que ma wax ak moom tey balaa balaa may jëlal. Mhm. ndax xam nga moom moo moom Pawlish. samedi le premier juillet. mais man dañ may may soxna suba. le dimanche deux juillet ma ne ko ah yow say mbir moom jàmp na di xanaa euh, dina fexe rek euh, seet ci sama assistant yi. Mhm. ci Jamra ñi disponible ñu def une petite délégation ñu teewal ma fa mu ne ma déedéet yow mii la ñu bëgg nga ñëw. waaw mhm. ma ne ko ah loolu day day na waar de parce que xat na lool de. Mhm. j'ai insisté waaw ah, ma daal moom ak ay kilifa. Euh, particulièrement nijaayam bu ñuy wax Mouhamed wala Mamadou Mbaye. ñoo jël décision ne daal cër bi yëpp dañ koy teg solo. xam nga ko la wax loolu. dañ ca na ba ma waxee koy maye fële ci mausolée Seyna Issa alors euh, ba ma eggee question boobu laa jëkk laaj ci mbooloo mu am ku ñëw mu daal di ma feeñu ne ma man maay nijaayam maa ko fi teewal ma ne ko ah, kon ñu ngi sa ginnaaw comme que yaay ñaan si ñun jam rek ñu ngi si ginnaaw mu ne ma déedéet jël nañ cër yi jox la ko fekk ci jàkkaarloo ak ñun itam di kilifa di doomu xalif général rahmatullahi alayhi Seydina Ablaye Thiaw Laye mhm. muy doomam bi ñuy wax euh, Serigne Mouhamadul Bachir moom tamit fekkee na mbir mi jotaay di yëkkati ci poosam la ko Pawlish jox daal di ko jox ilimaan bi waaw ilimaan bi nekkoon nag ñi ñi ñaan si ak ñi maye waaw kon jege si su ko defee ñu mën a jibal alxayri bi ma ne nijaay ji yow demal comme que yaay may mën na déedéet wax naa nañ ne cër yi jox nañ ko mhm. man maay nijaay Pawlish waaye jox nañ la cër yi noonu ma daal di def ni ko sariatu Muhammad yo waxee ñu jàng yi ñuy jàng ñu daal di ñaan soxna si ñuy wax euh, maam jaaro bu sa jóob maam jaaro bu sa jóob waaw kon ñaari élément yaa ngi noonu ñu ngi gërëm waa sans limite élément bi ñu mujjee jël foofu lañ ko taataane ñu ngi gërëm alburaax fa la nekk moo doon woo maam Maxtaar gi bu dee bi njëkk nag waa dakaar Buzz la ñuy jëfal ci ñoom la ñu jëlee élément bi kon Omar gis nga li xew lépp problème bi am na ñii ne nañ papa ji moo ne ci toor ñii nañ Pawlish moo ne ci toor <laughs> ala xaal daal problème am na ginnaaw bi takk jabar amee waaw xamoo euh, lu compliqué la mhm. compliqué la léegi nag baay bi moo nekkoon ci place am du ma doxalee nii. Hmm. waaw parce que bu dee dafa jàpp ne Pawlish dafa da xep waaye moom tamit li mu def xeeblu na loolu. maanaam génn gi. waaw xeeblu na loolu parce que sa sa doom bu dee ni yilif nga ko li ngay wax ci moom di dëgg ci yow. Hmm. daa am yoo xam ne lu mu rëy rek doon problème waxtaanu biir nag lay doon. Hmm. maanaam le linge sale lave en famille. waaw euh, pour man la fekk mu jël internet ñëw toog di wax ci Pawlish te dara gënul neex ci góor ñu ne da ngay dégg alxeer yi da ngay jël soxna dafa bokk ci bis yoo xam ne góor gu ko dund day bokk moment yi lay marqué sa dund mhm. mu xaar ba moment yi neex yooyu ci Pawlish mu génne moom pourtant Pawlish génn dund na fa ay moment yi metti ñu tuumaal ko ay góor jigéen tuumaal ko lii lii pourquoi génn woon ci moment yooyu taxaw ni maay bàyyam. parce que est ce que yëgoon na est ce que yëgoon na doomam lañ koy wax parce que Ablaye Faye la juróon. moom Ablaye Faye la juróon xam na Pawlish non Ablaye Faye la juróon. umpale umpale maanaam bu doon ci moment boobu. non dama ne mais Ablaye Faye la juróon. Hmm. dégg ñu naan Pawlish ma ne est ce que paa bi xamoon na ni. Pawlish mooy Ablaye Faye. non kii wax ni kii wax ni xam na hmm. xam na. waaw ah, parce que ni mu waxee da ngay xam ne umpalewul doomam xam na ko. mais bi maanaam lu sotti am borom. Pawlish. ah Pawlish sotti na ni. Pawlish fu mu ko mës a dégg. sotti na fu mu ko mës a dégg ci àddina du tudd ku dul maamam. parce que maamam ma ko yar. ah tudd ku dul maamam kon reconnaissance boobu mu am ci maamam lan la ko maamam lebal ba fu mu taxaw ci àddina du wax ba jeex tuddul maamam même buy jooy maamam moo koy jooyloo. Hmm. bi mu njëkkee am teraanga sax maamam la njëkk defal cadeau. lan moo indi situation boobu ba mu tàbbi woon ci loxoy maamam lan moo indi situation boobu ba moom bi mu nekk ci ay xat-xat ci jamono eh, du yoonam metti kenn gisuloon bàyyam bi ñu ko fiy jiiñ yenn yi pourquoi bàyyam génnul défendre ko ne kii de sama doom la lu mu métti métti même bu bonee sama doom la kooku day tax bis bu neexee oh. mais man lii bëgguma ko tuddee li nekk sama xel parce que affaire famille la mais le fait que mu xaar ba moment yi gën a neex ci powlis mu génn di xawi suturaam parce que xawi suturaam mënul wax weesu mais ñun li ñu xamoon ci moom doy noonu jotul am na loo xam ne ñun soxlawul di ko xam à cent pour cent nit parce que kenn du ko jeex ba mu sës mais pour man mënoon na gën a responsable même bu Paulus matadee hmm. waajuróom yi doon ku mat d'accord mais dama gis ni tanuwul Paulus ayca bu ci xajee rek ñu dellu si waat euh, su kaa su ma xamee fan la heure bi di toll waaw ñu dem waaw ma jigéen jàngat nga ñaari éléments yi ginnaaw takk jabar gi daal coow li bari na waaw sooy bu dama koy dooree rek si usta ak euh, si maam Matar euh, Gueye sama nijaay jooju moom deful dara son yu bu parce que tamit euh, bu sa nijaay taxawee te yàgg nañu fi gis euh, nit di takk jabar ñu ne bàyyile nañ ko diw wala maye gi cërale nañ ko diw bu cërale nañ voilà sañ li mu def sañu ko mais politique góor la ki xam ne na baal may wax voilà mi ngi noonu kon yàgg nañu dee gis loolu fii ku nekk rek am na kuñ la cërale mm-hmm. ne la yow mii kat booy mayee jabar sa yaay wala sa papa wala sa nijaay ne la ah man kat bàyyi naa la diw moom mooy dem ñaani wala yow yaay bu dee jigéen la yow yaay kay maye mm-hmm. kon donc loolu luñ ci wax Mame Matar Gueye rek tooñ ko puisque moom tamit ci Jamra la boo bu ko woowee yëgal ko takkam mm-hmm. nijaayam mu xam ni kii nijaayum xawma nuñ koy waxee lenke la ci ci moom mu ñëw ni ko cër bi laa ko jox lu ñuy def yow defal di jox naa la cër boobu noonu kon donc lu ko ci waaye wax tooñ ko leneen li si eh, topp muy papa yi euh, Euh, Pawlish bii di wax nii lii mu wax nii tegu ko fen hmm. parce que man tamit mënuma concevoir comme li Omar wax nii. xanaa lii Pawlish di sa xarit la moo tax. Euh, waaw sama waay la nag toog nañ kañ nga ko gëj a dégg. <laughs> gëj naa ko dégg nag yàgg na yàgg na trop. mosoon na la présenté papaam ji. non non non. wax dëgg yàlla xamoon nga ni Ablaye Faye la tudd. Mm, non Paul yooyu xam nga yooyu doo ko lijjanti Pawlish la ñu xam Pawlish dañuy dégg. mais papam ji lu ma leer ba xam na ni euh, Pawlish la ñuy waxal parce que bu fekkoon xamul Pawlish bu ñuy wax waxu Pawlish du du dégg mbir mi parce que yàgg na même bu dee ci vidéo la xool yàgg na vid gis ay vidéo paw ñuy wax Pawlish pawlis Pawlish mm-hmm. kon donc aussi responsable que mu nekk euh, responsable waroon na mën a jomma ñëw ci télé bi te yenn site internet yi par parfois dañuy profité si yenn occasion yi pour di jéem a indi ay jaxas-jaxas mm-hmm. looloo fi daloon euh, kii Titi mm-hmm. Pawlish ku ko xam xam ne maamam buy jooy ak buy wax ak buy joxe exemple ak yooyu yëpp diggante bu muy tudd maamam ak ba muy wax ne ba may jógee sunu kër di gàddu sama euh, ñampe di dox ba xaw ma fan pour dem sangu ji te kër maamam la doon wax foofu moment boobu fan la papaam nekkoon aussi parce que tamit nit ki balaa mu lay jox cër day fekk d'abord yow responsabilité bi la war sa diggante ak sa doom matale nga ko ba noppi peut moom moo deful woon di ko war mm. ba Pawlish di dem di takk jabaar woo nijaayam te ni peut bi muy wax moo jur yaayam te nijaayam mooy yaay n'est-ce pas donc su ma gisul papa gis gis gis ah, nijaay moo demoon nijaay moo demoon moom moo cëralee euh, euh, euh, maam Mata Gueye ne ko sant naa la nga mayel ma diw ah d'accord voilà suka xam nga seetaan seetaan naa ko moom Pawlish jour bi muy. Ablaye Faye moom Pawlish laay wax parce que Pawlish xam. mais Ablaye Faye la jour man Pawlish laay wax parce que Pawlish Pawlish Mbaye laa xam. voilà bi bi muy jour bi ma ko seetaanee bi muy gërëm gërëm na sax papaam. mu ne na maa ngi jaajëfe sama papa ji ma jur sama yaay ñëpp euh, donc nit ki nga xam ne bii loolu bii lépp amee ndax nee na euh, nee na Pawlish xaalis moo tax mu bew papaam la mm. moo ko jur nit loo ko wax loo bëggul ñu wax ko sa doom doo ko wax te lii mu ko wax keneen mën na koo génn ci biti wax ko ni ko dangaa bew sa papa nen dangaa bew su ko defee ja bu ko defee coow am moom moo ko wax te ba muy metti ba muy metti ba mu ba muy metti est-ce que moom papa ji est que ba muy metti moom Pawlish di nekk di daw di daan di def nii di def lu ne Pawlish dafa nekk day nekk nit koo xam nit ñi dañ koy bàyyi xel am na loo xam mënoon naa papa ji bi mu waxee am na ay sœuru Pawlish yu génn moom it tontu ko. am na bu baax. mi ngi ci mi ngi ci TikTok bi ay sœuram ah? ay sœuru yoo xam dañoo génn ñu tontu. li nu wax sax dafa ëpp ay yu sant Mbaye wala Faye. ay sëram yoo xam ne moo ko sa ñoo ñoom. sant Faye wala Mbaye xaw ma parce que sëru Pawlish la. dafa ah. tontu. de lijjit na ba xam Mbaye lañ sant wala wala mais bu nu santee Mbaye yaay yaay Pawlish mënut a sant Mbaye wala. dafa am loo xam ne dafa sori ci biir lay doon. dafa sori. d'accord euh, euh, soo yi bu lu sori kenn mënu koo lijjanti. mais am na loo xam ne buñ koy waxtee buñ koy waxtaanee nañ ko waxtaanee ci biir. nit ñi xamuñu xamaa ñu mere ankay tey tey tey bu ma defoon nii ci penc ci penc mi dina ma xam na da ngay suturaal sa doom nit da ngay suturaal sa doom moom am noo xam ne boo koy wax bu ko naqaree dafa war na woo ki nga xam ne moom moo di Pawlish nee na Pawlish Mbaye ko baal ma ak papa donc war woon a génn génn di wax. d' accord Mbaye Mbaye. alaaji noo gisee Ablaye Faye ak baayam ak Mame Matar mi ñu wax ni daal moo jaxase famille bi noonu la góor gi waxee. Mm. waaw Pawlish moo tooñ parce que doom mënul am raison ci waajur. Mm. d' il faut ngeen teg ci taabal doom mënul am raison ci waajuram. doom même bu ñu fóotee ñoom parents yi. ñoo nekk ci dëkk waaw d'abord loolu ngay njëkk a wax nit kii pour. Ah, mënoon na ko waru ko woon a weer. mais xam nga ñëpp tey kum ci ah. doonoon yow doo doxalee nii. doo doxalee nii yéen du ngeen yedd Pawlish wax ko dëgg rek la ñuy wax bu fekkente ni dañuy di nga def nii sa yaay di nga def dinañ la maye sa sa yaay yow dinañ la maye sa baay du ko yëg. waaw bu dee dañuy waxtaan. bu dee dañuy waxtaan. ñu loolu. man saa li ma koy fonk fonk sañu ma takk jabar sama papa yow bu dee dañuy waxtaan ah waaw bu dee dañuy bu dee dañuy waxtaan te dëgg rek di dëgg déglu leen da ngeen daanu ñu bañ fee nekk di wëndeelu ah, ñëwal euh, parce que li ngeen di wax noonu dafa garaaw te mën na gën a tas li ngeen war a wax Pawlish lenn rek la na dem tuubali bàyyi def na ko nee ko baal waa déglu leen ko mu wax da ngeen koy déglu mu wax da ngeen déglu na dem tuubali bàyyi waxuma la woo ko na dem tuubal ko jéggulu ne ko juum naa parce que li way juram wax lu wér la dafa am loo xamante ni bii sa dooma ngay takk jabar nga gis ko ci ay internet mhm. mbir mi sa demee noonu ak lu sa papa mën a def mhm. ak lu mu la mën a def mbir mi warta demee noonu yow dafa am lu la war ni sa papa amee lu ko war même bu yow danga war a def li la war mhm. loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg amul leneen jarul tourner di jéem a jël lenn di ko sëf ci moom dafa am naqar parce que toog ñu ne ko saw doom ñu ma ngay takk jabar mm-hmm. ñu publier ko ci internet bi munta def lu dul naqaram gi munta def lu dul dem ci internet bi parce que am na ñeneen ñoo xam ni ñoom it dañ ko daan waaye sa doom ji yëg nga ko mm-hmm. am na yeneen ak yeneen dafa naqar daf ko daf ko metti mm-hmm. yaa ngi dégg tey jii man problème bu ma mënoon am ak sama doom muy takk jabar yëguma ko daf may naqari. mais doo dem ci internet bi di ko wax. ah kay sans dépend rek. ah déedéet saa kenn du wuñu sa doom nag. da ngay déglu xool bu nekk bu ne doo ko def. déedéet déedéet waa léegi yéen yéen ñi ko séenee lii yàlla ngeen am doom ji mel noonu. yàlla na ngeen am doom ji yàlla na ngeen am doom ji mel ni Pawlish mu def ah, nii mu def. yàlla na voilà c'est que yàlla may doom ba pare. yow daa nga ne maa daale. adé damaa yaakaar bu dee boo ko suñu liggéey yàlla na doom bi takk jabar. yàlla na mel ni Pawlish yàlla na ko bañ a wax baayam. yàlla na mel ni Pawlish. doxalee ko noonu ba faafam ngeen. yàlla na mel ni Ablaye Faye fekk papaam def li ko ah war yàlla mel ni Ablaye li am solo papaam mm. def li ko ah. war ak bañ a def li ko war yoonu doom da cee néew doom xam nga la moo ko war moom oh. dafa war a def li ko war vraiment c'est que à chaque fois da ngay jéem a def yow li la war wax dëgg yàlla gis nga waajur yi duñu ay mm. fawukaay duñu ay caaxaan wallaay wallaay yaa ngi dégg dafa am noo xamante ni bi noonu nga war a doxalee ak ñoom mm-hmm. Pawlish juum na mm-hmm. man damay wax ne euh, nit ku ma neex la ku may toog di ko suivre mm-hmm. di ko déglu dama koy seetaan di reetaan di bëgg. Mm-hmm. parce que li muy def da ciy def humour day def leen mais gis nga li xew nii ak papaam na dem régler ji ko parce que sinon mën na ko yàqal lu bare bare bare non papa ji deful dara papa ji deful dara mais vilipendé ko vilipendé rek alaaji da ngay déglu mbir mi du ay woo ay bàjjanam yooyu papa ji deful dara kilifa gu am lu ko naqari la mu am sañ-sañu yedd doomam yedd doomam. Mm-hmm. ci penc mi la ko defee yedd na ko ci pénc mi. si yaa ngi dégg. Pawlish nag moom na comprendre loolu. comme que demoon na ba yëkkati téléphone am di ko woo. di ko baal na loolu na ànd ak jabaram. la damay na loo ba mbay ak ba. waaw mais ko a taxawoo la. ko yàlla nga am doom sénégalais la lan mooy li xaw mais yooyu kenn du ci dugg yaa ngi indi leneen loo xam bi amu ci ah. bu dugg ci beneen détail boo xam ne amu ci Pawlish nangu na ko mhm. yaa ngi dégg woo na papaam ne ko baal ma loolu la papaam wax dëgg sant ba génn na mbay génn na sekk génn ki génn na fay génn na moom daal mooy way juram ginnaaw wax na li nga xamante ni moom lay wax Pawlish di ko war na ànd ak jabaram ñu dem ko ci way juram dem tuubal ko ma jeex daal li koy tuubal point ko wàññi dara da koy yokk sinon parce que loolu bu ko defee cofeel gi nit ñi amoon ci nga ci moom dana gën a yokk parce que dinañ xam ni kat def na li nga moom la war a def mais mais keneen ku koy conseiller leneen euh, yéen ñii yéen ñii vous êtes dangereux. non non man nag tey tey ànduma ak eh, xam eh, eh, may ma man ànduma ak man li mu wax problème man li mu wax moom laa de musiba ngeen. ay alaaj déedéet. kenn du ko def yow dama ne bu leen ko waxati suka dama ne yow kenn du ko def problème problème nga dul def bul koy bul ko xalaat Pawlish xale la su ma ko téléphone dama naan ko demal nga tuddal sa baay Pawlish xale la son yi bu ah xale bu ndaw la bu ci àddina yaa ngi dégg. waaw way yi da nga leen di respecté. dañoo am solo ci carrière bi dañu am solo. li nga war a conseiller Pawlish mooy boo ko respecté woon da ngeen naan dama tuubal sama yéen ko fi sànq yéen a ko sànq. c'est grave ñu garaaw a non du jaaxal yéen ko fi sànq yéen a ko sànq. yow ni yow nit a nit ñu ngi koy bàyyi ah. a jërëjëf jërëjëf Abdou mooy way juróol sëñ Moustapha Fall mm-hmm. bu nit masaana joteeg baayam mm-hmm. du fa nekk di laaj joxe xam nga nu may def mm-hmm. da koy bàyyi mu toog ba jooy ba xolam sedd mu jàpp ci loxoom yóbbu ko ca baayam ah, amul leneen xolam bu fa demee ay détails du am ah, leneen lu dul tuubal sa baay mu jeex yaay doo ko yey baay doo ko yey bu jeex na tàkk donc euh, suba insha allahu rabbi ginnaaw euh, ah, suba waaw suba suba la jeudi insha allahu rabbi may sargal ñi nga xam ne rek ñoo nekkoon ci li nga xam moo di euh, régie bi ku ci mel ni ma Mamadou Diouf laay fu muy amati moom koy ah, waaw bu yaboo laay ak ki nga xam ne rek moo di Mouhamad Fadal ak Top maa ngi leen di nuyu di leen sargal di leen jox rendez-vous suba incha allah rabi ajaratu béti mbub si deecalaw nuyu nan la dégg nga waaw ah, kay KPI moom sa bopp moom sa alal yombal sa dundu ak boutique solution ñoo leen doon may seen émission Taku Show